ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo itfa rajo itfa ànd ak yéen ci programme yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo itfa ànd ak yéen lépp luy askanu gambia wala mu soxal askanu Senegal, te nekk ci biir amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo itfa ci programme yu am solo rajo itfa di rajo askan wi leeram ya jolli na xol fo radio bawan radio itfa dal, dama ni jappal ma bi radio bul ko ti ba mukk radio itfa radio askan wi ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت صلي على محمد الله محمد سيد الكونين والثقلين والبريد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 ñu ngi leen nuyoo nuyoo bu tedd di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nuyoo boobu ñu ngi ciy jiital sunu Ahmed si bu Cheikh Sidi Mouhamadou Habib bu maam Cheikh Haji Malick di ko nuyu waaye it eh, di ko jaal tabarkalla doomam mbokkam di sëriñ Abdoul Aziz Al Amin bu Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha ñu ni noonu lañu nuyoo soh soxna ma jigéen di sunu yaay dara waye di nuyu nak kep ko xam ni ñi ngi and ak ñun ci émission bu mag bi nga xam ni tabarkàlla ngi koy amale fi ci ëttuy fa nu nekk fii nag ci darul habibi isu jobu New York di beral nuyo nak sunu ganu tay di xarit di di ñen ci delu ci légui di sering Pape imam al imam waye ñi ngi nuyu it mbokk yi nga xam ni fu nu mën a nekk ñu ngi ni seetaan rawati nag soxna yu tedd nga xam ne ñoom lañu àndoon ci liggéey bi mbokk yi xarit yi xam naa dañ leen di bàyyi rek ak sunu mbokk Haji Pape Diagne bi nekk Washington Tivaouane incha allah mu andi leen li nga xam ne mooy eh, programme yi fa bu ko defee nu dugg ci waxtaan wi Haji Pape salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen ko baal naka noonu di jiital si nuyu bi sunu sëriñ sunu kilifa sëriñ Ahmed si bu suñu mam Habib si bu suñu maam Haaj Malick si Malick suñ ko nuyoo rek nuyu nañu ñëpp naka noonu ñu ngi yóbbante nuyoo suñu yaay soxna ma jigéen si mu nuyul ñu soxna yëpp Haj Fally comme ni nga hmm. ko waxee rek jéem a jàllale programme bi nga xam ne ñu ngi koy amal euh, chaque semaine ak ITFA Islamic Tijaniya Foundation Amérique euh, di jiitu ci programme bi nag mooy jàngale alxuraan boobu mi ngi am ñetti yoon ci biir semaine bi sunu sëriñ ci boppam moom moo koy def bi ci njëkk mu ngi koy amal Tuesday mardi ci guddi from eight to ten pm boobu mi ngi jàngale ci wolof daanaka ñu ci nekk di jàng sori nañu lool macha allah waaye ñëpp xaj nañ ci si waaye bëgg bokk rek mën nga ci bokk incha allah. beneen bés bi si top muy saturday di samedi from one ba two thirty pm boobu euh, mi ngi ko def ñu ci anglais ñu ngi ko design pour xale yi waaye mag ñi tamit xaj nañ ci. Euh, beneen bi ci topp muy ñetteelu fan bi muy sunday euh, dimanche from one ba three pm boobu ci wolof la euh, pour ñi nga xam ne sorewuñu mën nañ ci jàpp incha allah mm-hmm. loolu mooy ñetti classe yoo xam ne mi ngi koy amal chaque semaine fii ñu toog nii ci zoom bi koy defee incha allah te ku ci bëgg a bokk mu nga seet soxna Ami Sarr moom mi ngi ci 401 261 2701 401 261 2701 wala nga seet maam Adama Gueye moom tamit mi si 401 688 5617 401 688 5617 boo sete soxna Ndëriñ wala soxna Jeewo wala Pape Ndiaye Gueye Cheikh Dial koo ci mun seet rek incha allah dina la mën a teg ci yoon bi ba nga mën a bokk ci classe yooyu di mën a jàng la ca topp mooy euh, li ñu doon def démb ñu ngi nekkaat fii ci Zoom bi di def programme bu ñuy wax ëttu ITFA moo xam ne dafa yëngu ci social bi euh, lépp loo xam ne mi ngi mën a yombal suñu nekkin fii ci Amérique euh, ñu mun ko teg ci ñaari waxtu from nine ba eleven waxtaan ci dañuy indi ay docteur wala ñu indi ay avocat wala ñu indi ñi ngi xam ne ñi ngi yëngu ci éducation bi lépp loo xam ne jëm na ci social mën a yombal ñu nekkin fii rek lañ leen indi ci ñaari waxtu ñu toog ak ñi ñun fii ci Zoom bi waxtaan ak ñun ñu laaj leen ñu tontu ba ci topp mu comme tey nii àjjuma ñu wax àjjuma ne xadaratul juma ñu toog fii seet ay borom xam-xam moo xam ñi ngi Amérique moo xam ñi ngi Sénégal fu ñu mën a nekk ci àdduna ñu indi leen fii ci ñaari waxtu ñu waxtaan ak ñun si sunu diine ñu laaj leen ñu tontu na beneen bés boo xam ne muy lu Wednesday mercredi from uh, eight ba nine ci benn waxtu rek dinañu daje di waxtaan ci li nga xam ne moom mooy jëmale kanam fondation bi boobu tamit képp ku bokk ci fondation bi rek uh, mun nga ñëw uh, indi si sa xalaat pour que liggéey bi gën a yom loolu daal mooy programme mi nga xam ne mi ngi am fii chaque semaine ci zoom bi ci Islamic Tijana Foundation Hadj Fally maa ngi lay jaajëfal la seen mbokk seen taal bi Pape Diagne fii si Tiwa euh, studio Tiwaawan Washington su daarul Habibi maa ngi nuyu euh, sunu mbokk sunu euh, imam Alaaji Pape Alaaji Pape macha allah am na solo ni nga ko waxee loolu programme bu ambitieux la yal na ci yàlla jàppale sëriñ bi waaye jàppale ñi nga xam ne yëpp it ñoo ci ànd ak moom. rip fas rek dalal nag sunu gan nga xam ne Alaaji Pape mënoon naa bàyyi sax yow nga dalal ko. ndax it tabarkal mbokk la boo xam ne nii yàgg naa ndag it fa di jàmbaar coo xam ne nii eh, wax dëgg yàlla xamee wuñu ko dara lu dul lislaam xamee wuñu ko dara lu dul jàngale ak jàng mu di imam Pape Mboup imam Pape Mboup muy honneur tey ñu koy dalal fii ci fa nga xam ne ba ITFA doore ba léegi ñun ak ñoom ñoo ànd ñun ak moom ñoo ànd kon tey wax dëgg yàlla dina nekk bànneex bu fekkee ne eh, moo ni defal tey waxtaan nga xam ne ni bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk waxtaan ci mois de janvier bi nga xam ne ci la at mi doore kon nak imam ñi ngi lay nuyu di la ziar di la wax alaykum wa rahmatullah imam pambu alaykum wa rahmatullah xamna rek wa régie ñu set ñu jappale ko mu ak xam naa ci kanam rek ma imaam Pape na ñëw euh, wax defal nu waxtaan tey waxtaan bu am solo boo xam ne nii tabarkàlla ci wàllu julli la muy waxtaan boo xam ni kenn ku nekk ci ñu yàkkamti na ko ndax it euh, julli dafay loo xam ne nii daanaka mënul ne mooy baasu diine euh, bu sa julli baaxee sa lépp baax bu sa julli baaxul nag bala noo seet ba ëllëgee la neen julli di njëkk a seet bu baaxee rek tabarkàlla lépp baax kon nag suñu jëriñ def ko ni ko war a julee defee eh, xam naa waari rek ñu jàppale nu mu seet fan la oustaz eh, tollo xaaji eh, pap xam naa rek di di di am di am mbégte lool ci programme bi ni ko joxe muy programme bu am solo ndax it wax dëgg yàlla lii lañ fi fekkoon lii la fi sunu maam yi fekkoon àndoon ceeg maam Seydi Haaji Maalik kon tey bu fekkee ni àndandoo ak sëriñ bi mu nekk ak ñun tiddi di jang ak jangale e eh, tabarkàlla kan du nu meuna du mm. lu sant yàlla bu baax baax ndax nek nan ci dekk bo xamni ni wax deug yalla li nga xam ne moo wa barakatuh wa euh, alaykum waaleykum wa rahmatullah imam hadi fadi alaykum wa barakatuh imam ñu ngi lay ziar di la dal di am mbégte lol tabarkàlla kan ndax it wax dëgg yàlla jàkkaarloog yow fay nek banex ndax it do do ko xamne dan lay présenté ci itfa itfa wax deug yalla ñun ak yow la woon bañuy door ba legi kon tay day mbekté nga jàkkaarloog mbok julli wara waxtaan waxtaan bo xamni tabarakallah ni fay dafay ñeel waa itfa yépp ci ndigalu serigne bi serigne Ahmed si kon imam bismillah wa jox la ngeen yo dugg ci waxtaan bi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا زيار جريجف مو زيارت باب دان دوخ من نب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سنت يالا بنو يالا مي من تيو بس تدبي الحمد لله نمبر نك غناو بسنت يالا دانغ فاتح بي خمون اوبي نو نيب ما يالا جوخين تيالا محمد عليه الصلاه والسلام بايك الله عليه الصلاه والسلام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 يخن تدق شامر جانسير فضي الله عنه ترى لنو ترى البخامني بيوم القيامة فعدوت سني كنت لنو حاج فاليو صبي إزار سن باب جاين سنو صبي سنو خريب إزار أستاذ حسن تندوم وحنا مم تيسي قدي فابنك زيار بي يبنك أغنيو بي تكسن لخصرين سنو خريب سنو مدي سنو باي احمد يعني شيخ سيد احمد سي يعني يالا يوك كاتنم يوك ويرم يوك منم ziar bi jëpp jëm si képp koo xam yaa ngi seetaan émission bi foo nekk ak ziar bi nekk si képp koo xam jàng bokk si itfa ak képp koo xam ne jullit nga ndax lépp ñu ko bokk am mbégte ñëw fii tey ñuy waxtaan affaire julli. Mm-hmm. nga xam tuuti naa lool pour wax si. sama xam-xam néew na lool pour wax si julli yàlla moo ko moom moom nag soo ko bëggee wax da ngaa sonn rek. Mm-hmm. julli yonent wax ak moomu ko yàlla kese moo ko moom ndax nu ko sant mm-hmm. mu nekk farat. di nekk loo xamee ni mooy jaamu yàlla bi gën a foor nit ñi xamuñu ko tax waxtaan see fa baax mais bala maa door dama bëgg jaale waat sunu yaay soxna Dieynaba Kamara allahuma agfir laha warxama yàlla na yàlla na def suuf sedd si kaw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 ak ki tedd mooy ki yërëm mooy ki jéggale moo bind nag dee soogaa bind dund doxul dund nag pour suñu seet pour moom mu seet moom yàlla kenn mu kenn mu gën a rafet jëf mu gën a rafet jëf ayyukum ahsanu amala mm-hmm. kon dund bi mu gàtt mu gudd dañu war def compétition pour seet kan moo war a si kanam yàlla kon laa topp sa jëf rek la yàlla jëf yi lay xool dee nag ku def nga ni mag rek kay dee ku def nga ku feebar rek kay dee ku ne gëm ngeen dangaa dee mais ku ne ku ne gëm ngeen deewugoo léegi Mm-hmm. ku ne gëm ngeen da ngaa dee mais ku am nga minute mm-hmm. am nga cent am nga dix ans te benn mm-hmm. garanti aussi pour nan defaraat sunu ay jëf liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al ne dama bëgg xool yéen yéen a ngi si test adduna test la kenn moo gën a rafet jëf si yéen jëf tuuti nag moom rek moo laa topp sa bàmmeel du xaalis alal ku xam-xam ku taadu darate dara du la fekk dul sa jëf dana yëf ca rafet def na danga kaa mesurer danga kaa peser ci yàlla digal ak na tere yàlla wax subhanahu wa tabaraka wa taala ni wama xalaqtu l jinna wal insa illa li yabudun man yàlla binduma jinn ak nit lu bëgguma leneen santuma leen leneen nan ma jaamu rek rek laa na sant kon sa jëf foofa lay wuyoo foofa lay wuyoo wa ma xalaqtu l jinna wal li yabudu binduma leen ñeen doomu aadama yi binduma leen ñeen ne dul li jaamu ma nga jaamu yàlla دخل نقل دونك ورجع مو وانو نك دونك ورجع قال وات ايون انتم سان بنت كات ميل بروفيت 124,000 تانسي 313 نك اي رسول ام يوبنتي قدام نك تانسي جروم اولو العزمي جن سنب انت على نوح انت على ابراهيم انت على موسى انت على عيسى سيدنا محمد عليه الصلاه حتى انك سنقول نبنا صلوات الله وسلامه عليه انت على محمد في تمويل الشيخ ني محمد مي moo gën ñëpp Muhammad fi jaaroon mu yónni la moo complété list boobu yéen ñi nekk xeetam nag yéen gën ci xeetam yéen gën ci xeet yépp ak kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas nga leen seppi man yàlla def leen ngeen xeet bi gën ci xeet yi na am a ti yonent bi gën ci yonent yi Kita nak hamil harus Islam. Lalu dok اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بس عرف اللواتي هاي بوبو هل انت محمد يوم محمد بس نكتي سدينا مثلناكم ما يخول مثلناك اليوم ما تنك إسلام تخلق يو تدل لكم إسلام أم فمو أي فندما إسلام فم أي فندما أي بدي نفهم نقول دعاء سيدنا الله كنلا محمد الله كوني دومنا تخول جلي جروم جرى أزكى دعم لينعم أم ما تنقول weer weeru koor dem màkk ndigam mën nga ko islaam nga ko waaye ndax ñu dégg nañ islam boobu soo ko islam sa iman du mat sa ihsan du mat islam moo jur iman te ku ne xam nga iman lu mu wundu dana xam ne wax na ko xadis bu bu xadis jibril lañ ani islam ani iman en passant by the way iman jorom ben ponk la nga gem yalla gem malakam yep gem teri yi wacc yep gem yonentem yep gem alakhir bisipen gem penc gëm dogal yàlla mu neex mu naqadi ben ponk ko iman gem yalla الإسلام موجود إيمان الإسلام موجود إحسان إحسان أنت نحن مننا اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك jaamul yàlla yow jaam bi mel ne yaa ngi kaa gis jaxëran soo ko mënul gis nag ndax sa bët baaxul wala sa xol dëndëm na wala sa xel dafa jaxasoo xamal yàlla ma ngi laa gis nga def attention suñ kaa jaamu fu nekk nga bàyyi yàlla xel tokki lépp xam ni foo làqu mu nëbbu mu feeñ yàlla nga lay gis kon islam mooy base ku amul islam nag dan laa bàyyi rek islam li importance nag si islam mooy julli julli waaw julli yonent bi aleyhi salaam nee na as fi diini ka ras bil jasad nee na julli ci diine dafa mel ne bopp ci jëmm ku ñàkk bopp rek dundoo mën nañ defal nag lu nekk waaye sa amul bopp rek dunduloo kenn mësul gisit bopp bu nu bopp bu nu greffé hmm. transplant gisaguma ko déggaguma ko numéro de moo ko jéemoon ñu mu demoon ñu teel Ibrahim ñoom dem ba beewu xëy na yàlla bind ñu dafaa def transplant head transplant dafa bëgg nekk bopp boo xam ne or la comme nag buur lu mu bëgg seen kaa def rek ñu ni ko d'accord noonu si loolu da ngeen dëgg saam boobu rek seen ko daggee ngeen def bopp bi bopp golden head bi ngeen def kasi ba dëggee boobu la xam ni dee na defee bopp or bi golden head bi fekk na moom dee na bu yàgg kon julli mooy noonu julli mel si diine noonu la bopp mel si doomu aadama nga ñàkk loxo dund ñàkk tànk dund defal la sax heart transplant nga dund waaye bopp moom transplant no way انت لو حملني عليه الصلاه والسلام الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاه the difference between a Muslim and a non-Muslim is that the non-Muslim doesn't pray. Point blank. It's praise. ñu wóotele julli jullit ak ku dul jullit mooy bàyyi julli waaw bàyyi julli dafa garaaw ku ñu ku koo xam daal doo julli nañ ni yow doo jullit amul werante gis naa Sénégal bi ma demee jamono yi ñoo xam ne taalibi cheikh lañu bàyyi sa xel bu baax a baax jamono dafa dox ñunu julli nag suñu woodi ñuy zikkar rek wét seen ay wér ñunu julli ñunu taalibi cheikh ñun ñee suñu xale yi si duñu gis jamono ji fu kenn nekkee doo julli mu xamoon sax taalibi cheikh kooku moom waxatuma ko sax moom ndax cheikh tariqam dafa méngu euh, sunna yonent bi alayhi salaam mooy diine rek leen loo xam ni man sama tarixa bi dan nga koy mesurer weigh it out see whether it is in conformity with Islam whatever is not in conformity leave it ceex nee na sama bi da nga koy mesurer da nga kaa peser ak balance bi balance nag mooy mooy sharia mooy sunna yonent bi aleyhi salaam fekkee méngul ak moom bàyyi ko fa dafa am na tijaan ma dégg ينتدال نيو نين ندي حاضر دي ودي فدي ذكر مي دون جولي تي دي وور ام لي ما سامتا سنغال باي تخال تخا بخالي دي سي يوي كون نيو سي جولي كون جولي ينت محمد صلى الله عليه وسلم ني مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور انت ابي اجنك مودي جولي التعب الجلدي نك مهي لاب متكلم من وقت جلدي وخاص لاب ورد من نك تخمن قد جلدي بدي أمو جلدي نحلاب لو كن جلدي لك جيت مهي نك لاب باري لاب لن يورد كلار توتي لاب نك يالا مو وقت من وقت يالا مو وقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون القدر العظيم ما ngi زي أستاذ تاندوم ما ngi gis dama bëgg loolu ñëw sa xaajara bi gis di gëm ni si Ahmed di ñu def Washington di ñu def feneen ndax yaa ni yàlla yokk leer si ñëpp yàlla kon ni yéen ñi gëm xam ni maa seen boroom maa moom nga néew bay taxawal julli bu leen ñëw bu leen julleegum ndax man dama rafet man yàlla dama bëgg lu rafet ñu ngeen préparé seen bopp ñu ngi amee ngénte am birthday am xew defar sa bopp ba jekk lal yàlla lu la bëgg defar sa bopp bala ngaa dem sa borom ndax moo la moom i ngaa solo rafet seeti keneen yàlla ka yàlla ka gën a ndax yàlla moo la may xaj moo la may xaalis mais la kàttan ma ngi sa taar mais la xam-xam ba nga xam ne yow yaa ngi nekk doomu aadama ko doxal yàlla njukkal i ngaa sol defe ke xew sol ko taxaw jaamu yàlla rekk sa xool nag yàlla ni kon bala ngaa julli dama ngeen raxas ngeen ngeen raxas seeni kanam raxas seeni loxo ba si seen conc masa seen bopp raxas seen tànk ba seen bëti tànk ko xam nag da nga nekk si janaaba nga sangu si dama nga sangu su fekkee da nga war sangu seet nag te amuloo yaa ngi tukki wala boog da am jàngoro boo xam soo laalee ndox mu mu lor la na nga tiim tiim bi da nga masa sa loxo wamsahu bi ay aydikum min sa kanam ngay doore masa pare masa sa loxo kon daal yàlla wax na njàpp wax na sangu wax na it tiim yàlla ne bëgguma leen teg coono nag ñoo bëgg dañ ngeen laab da ngeen xam ni li ma leen jox si xéewal matale naa ko kada defee ngeen sant ma kon japp sangu ak ti ma ngi fofu way balaa ñu wax lool day wax nak ah, ni nga use bathroom ba ndax nit mën na jàpp amul amul julli da fa mu nekkee sa bathroom ba lam fa def moko top rawti na góor fi ku ne xamna am ñoo xamni ñu ngi ci toilette rek bathroom yi duñ sax wisu wala boog ñuy gaawantu daan wisu sax mais gaawantu ba moo tax sobe la ñuy doon daa nga xaar yi ku see tuur ndox nga toog bàyyi taxaw am na sax a mag ñu koy def waaye se góor yu taxaw di saw noonu jaaduwul tuur ndox da toog soo taxawee tuur dox taw mi mën na tiis si toilette siit bi wala boog si suuf wala keneen jaar fa mu topp ka fekk yaa yàqu julleem yàlla ni ko naa nangu sa julli ay ki nga xam ne moo ko sos moom julli bi mu naru julli bu baax na la ko jox yow su julli bon bi nag ma delloo ko moom te ku tuur da nga tok su tuuree ndox pare nga tok bala ngaa bala nga bala nga bisu give it 30 seconds give it 2 minutes give it 3 minutes yàlla jar na ko soo gaa wisu góor muy jigéen ndax استوصوا بالبول فإن أكثر عذاب القبر منه متين كل تور نخ متين كل سو نمقل بامل بو لي أبس مقل بامل سي سو لجري أمني نجو حديث استوصوا بالبول فإن أكثر عذاب القبر منه متين كل سو تبقل بامل بري بري سيبس لجري أمنا حديث بيرلون انت الحمد لله رب نعرب من عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين من نين يا جمعين بقول سبام من دفلان دمبات يقول لا يدخل الجنة نمامون في رب دلوك أجنمك أبدا إن شاء الله مسلم نمبات من جفاك من نك آه، أي أي أي دوم ده دوم بعند جفاك بيحسن دقيت انت المحمد لا يدخل الجنة نمامون في رب دلوك أجنم ni moo tax kooku jëng kaa bëggal si bàmmeel keneen ki mu ni su tuuree dox su tawee daa woon ferlu moo tax daana jàpp ba son nag julli ba sonn yàlla gisu ko mu ngi ñoo kaa bëggal si bàmmeel te kaam ñëwagul sax su defee si bàmmeel ba one one thousand year two thousand year te kenn xamul ñaata tàngaay def si biir suuf balaa yomal kaam di ñëw ñu ngi taal Muhammad alayhi salaam ñaan ñu jox ko ay branche ay caru garab yu tooy mu def ko seen bàmmeel seen bopp bàmmeel su ko defee mbugalu bàmmeel ba xaw wàññeeku tuuti mais mbugalu bàmmeel ba xam nga arrêté dafa wàññeeku rek kon mbugalu bàmmeel ma ngi diwaari si ñàkk teewlu sa sa sow ñàkk bàyyi bës yu génn ñàkk ferlu baaxul rawatina su góor kon nga tuur ndox foofu jàpp-jàpp bu mat sëkk jàpp farata yi wax ay bi wax na ko gannaaw yéene xam nga loo Oustaz Xasan Gisam ka jàggale ay def ay durus ci bari nga raxas nga gannaaw yéene nga raxas sa kanam kanam nag doo ko taap-taapal danga kaa raxas faxsilu la yàlla wax ujuhakum seeni kanam raxas da ngaa sotti ndox di ko dàq boo nga def make up yàlla yàlla yoonam nekku si nga raxas kanam boo xam tooy rek su julli ga baaxul ndax jàpp bu matul kanam farata la jëla doore ba si suuf sikki bi keru nopp bi ba beneen keru nopp bi yëpp tooy xeb nga raxas sa loxo ka doore sa tibu jara ba sa conc tooy xeb boo si bàyyi rek boo fa bàyyi rek mun na yàq sa jàpp yàlla jàpp si baaxul julli du baax mata sa bopp ku ne xam na ale bi rek the one way is farab the other way is is sunna ku ne xam ni dellu bu dëkk bi mooy mooy mooy mooy mooy farata delloo bi sunna la foo ko doole nag baax na waaye doole si dañ ko sopp doole sa jë dem sa doq dañ ko sopp ne doole sa doq dem sa kanam rasa tank ba sa bëtu tànk fa ratal la dafa war ay ay ay noox noox ñu fexe bi jëpp toy xep rag ak gaaw Gendem si sunni mat sek رخص لخوي بس بس تبو جر قال لك نيكو سرخ نيكو فيرو نهار يو يكون بايت خيل سرخ نيكو ما يبا دوخ بدب كسا بكن فيرو مانجي جينو نهار سنو يخ بوكنو نلين داولي تجور جلوتي مسا بوب مسا ساي نوب توف تلي فراتي Japongo Hakeisuno. نصب باري لول وقت بسم الله بنغا واخ سو نيك سوجي كاين واخ بسم الله سي توالي ديدي باطوم كاين واخ بسم الله او سخر لك تولي على كاين كوخ خمسه بلا فهم مثلا سي ديغنتي بومب ديغنتي لوخوي دنكو صوب بومب سا اي بنت دنكو صوب قال لك نكون مسنا مي بومب ديغنتي بن te lu fa nekk ci ñam foofu dañ ko sopp doore ndey joor toujours dañ ko sopp doole sa jë ñu ko waxee dem sa doq soo dee dem masaa sa bopp dañ ko sopp ba njàq ndox dañ ko sopp topp su nii ñu ko waxee nii dañ ko sopp kon mooy yooyu su fekkee ne su ñu yooyu nekk seen amuloo amuloo sink li mu soo dee jàpp nga teg looy jàppi sa ndeyjoor ay fii nag xam nga ñoom ci bathroom yi ga ga ubbi rek ay bu noonu nag dama njàq ndox koo la bokk ci si yi ñu sopp si njàpp jàpp da nga kaa topp فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ñu wax julli waaye dañu wax laal tuuti rek xam nga tànk danga kaa raxas mais ku nekk ma masa sa tànk so soo waxee wamsahu bi ruusikum wa arjulikum boobu mën nga masa sa tànk soxla woo sa sol kawas masa sa tànk ko riwaayaat la jàng Qur'aan la boo ko jàng baax na arjulakum ardulakum wa arjulikum bos na bahasatan nggak kemasa ni wér kemasa, ted ñew sangat ted wax sedih, japp ni faratay juroom la am ñu wax ñent mën nga dem jurum ban nga yéene seen jëf war toy war nga rag war nga gaaw pare nak gaaw bi gaaw bi nak ngi se see nak bañ taxaw farat sangu timo xaw jafe si bari bare ndeysaan yàlla jàppale kii moom gannaaw bi ngay yéné xam nga om saxu bi wujuhikum wa aydikum sa kanam ngay jëkk def su nga def sa loxo ñun maaliki dañu ci ndéetim lañu def ñaar yoon ñaar yoon nga tek sa loxo suuf dëkk bi may farata benen bi sunna la nga tek sa loxo suuf wut tex suuf si ndegam suuf nga jël def sa def sa kanam directement tegaat sa loxo suuf ñaare boobu sunna la def sa loxo doole sa gannaaw loxo fi fi doole dem ba sa coonc ñëw si biir loxo bu teg sa loxo dem sa loxo càmmoñ gannaaw loxo bi ngay doori ñëw si biir loxo bi kon kanam gi ak loxo yi ba tibu jara bi farata la mais ni ko doori tibu jara ba coonc si tiim sunna la tibu jara ba si ngir imam malik sunna la am ñoo xam du def seen seen dañ def rek seen loxo nii rek def seen kanam si benn tiim bi benn teg loxo bi dañ def seen seen seen kanam def seen loxo ba seen tibu jare daal di kàbbar waaw moom noonu lañ ko déggee daa di ki ngi gis ba seen coñ waaye nga xam ne tibu jare ba coñ ñu ko sunna la kon tiima ngoogu xam ni jaar na xam bu ne la mu laaj soo tiimee ne doo wax doo fi nekk di wax danga julli immédiatement mënoo tiim si ñaari farata mënul nekk mu ngi tiim benn farata ak junni naafila bu la neexee ay farata bu ndefa ànd ak waaw seen tiim jar na jàng pare nag yàlla nee na nag léegi ànd ak sa sago nag laa taqrabu salaa wa antum sukaara xata taalamu ma taquluun wala junuban illa aabiri sabil xata taxtasilu bul julli te àndul ak sa sago ba gëmmintu gëmmintu ma nga naan kafe wala nga naan attaaya wala nga sangu wala nga selmu waaye di julli xamoo sax saari nga jàng yàlla bëggul lool na yaa mandi yàlla neen bëgguma lool dama bëgg nga jox ma sa attention man ngay waxal waxaloo kenn maa la bind maa la mu maa la mënal so demee defee eight hours defal benn eight hours ñu si man sonn d'accord ma si loolu dañu teewuma loolu ndax maa la mënal fu shift nga liggéey ñoo sëkkee ne dafa ni man man da maa bënd bàyyi rajo yàlla ni bëgguma ma dama atte I need your attention ñu ne junni bu rafet bii li xam ngeen jëmm la képp ku julli julli gi dafa laa ràmm yowmal qiyaama julli dafa wax na yàlla ki ngeen moom teraloon moom fonkoon soo ko fonkul yowmal qiyaama ñu dafa taxaw taxaw fale di leer balaa mu dem si yàlla saf laa dëbb malaaka di jóobu si yàlla loo xam ne baaxul waxtu boo julli te baaxul dana kaa sànni si heure ba nag sa waxtu wa te heure bi wax sa waxtu waaw loolu moo wax sa heure bi bàyyi téléphone ñuy topp ba julli à l'heure computer yi topp julli à l'heure sociaux yi ba duñ julli à dara caaxaan rek ndax soo ko defee yàlla du nangu sa julli moo wax sa alquran mu er ni aoudu e, billahi min ashaitan rajim فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون الذين ربنا نيغا خامني ني جولي ابن جولي الير فونك ني جولي ابن ني خي جولي لن نحصل التلفزيون كو تلفزيون بو بروغرام بو ني بغي خام لا ني واخ ني ساكوي ودي صاح ني sol yére yi xam yére ay yére falaa-falaa la rek joxoon nu julli xàqam dal neen du ma nangu seen julli xana boog nu julli boog di ngistal alladina hum yuraun seen jëf yëpp ngistal la yàlla neen du ma ko nangu koo xam ne ngaa jaamu yàlla di ngistal yàlla neen du ma ko nangu ne am nga baat bu neex wala nga solo yu rafet wala boog lu mu mën doon yàlla neen du ma si jaamu yàlla nga war sellal sa ajab so dañoo si man kon julli ñu fonk ko ndax julli inna salaata tanha an il fahshaai wal munkar julli moom soo ko defee ni ko yàlla bëgg yàlla na def laa raxas in and out laa raxas in and out loo nekkoon si ñaaw ci daa ko bàyyi loo garaaw garaaw garaaw dangaa bàyyi sa mooy yàlla du julli la julli nga def ñu teel Muhammad alayhi salaam ni julli dafa mel na ngay sangu juróomi yoon si benn dex buy nekk si buntu kër hmm, da gars yi ndax daa am salte ndax daa tilim kay ni ko déedéet ne lu julli every day nga take bath in the same river five times five times in one day ñu di bi déeti gars ni ko déedéet ne ma ngoow julee ngoow kuy sangu juróomi yoon si des si doo de xam am sa njàmpi di am sa saabu kon julli nañ ko fonk xam ni moonoo dimbali ñun ñoom la yaani il faut nga xam ne ñu jullee nag fo jàmbi xam ne moo jullee xam julli la mu làmp comme julli moo di lan yàlla dinu jàngal an taarifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni xadis alqudsi yàlla nee na xam leen ma avant ngeen jaamu ma seen ma xaw na ngeen maa jaamu ndaxte di jàngale ni awal ma yajibu ala almukallafi tasheeh imanihi thumma maarifatu ma yuslihu bihi farda 'ainihi ka ahkam as-salat wa at-tahara wa as-siyam naa bi nga sa wér bi sa ngëm wéree fexeel ba xam lan mooy sa ponk jaamu yàlla ndax ñu war jàng julli juddu mécanisme rek julli sa science seen art julli art la seen art sa science yàlla mi nu ko jox rek moo benn xeet bu julli comme ñuy julli amul amul daan julli waaye ñun ni ñu benn xadd ama ko woon bi ñu jiitu woon amul Quran wàccul woon kenn daaw jàng Quran te Quran mooy té mooy téere mooy seen yaay kenn daaw si jàng Fatiha Fatiha ñu nekk yàlla jox Fatiha ñu nekk yàlla jox te dañ ka jàng si julli bu nekk nag rakk boo ko julli boo julli jàngaloo Fatiha rakk ba zéro la fatiha ku ne xam nga sidna jibril dafa wax yonent Muhammad sallam ni ko avant fatiha wàcc dama ragaloon yàlla dafa buggal sa xeet yëpp waaw ndax yàlla moo ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab li kulli baabin hum li kulli baabi minhum juz'un maqsum jahannama juróom ñaari bunt la jibril alayhi salaam ni yonent Muhammad dama ragaloon yàlla dafa buggal sa xeet ndax jahannam ni fatiha wàcce nag juróom ñaari aaya la ma man man jibril xet kenn leen mbugal ndax aay bu wàcc si fatiha tëj nga benn bunt jahannam ñun yàlla fay nit yàlla wax te julli boo julli rakk boo julli jàngaloo fatiha rakk ba zéro la ku julli mu làmboo ñun xamuñu ko sax mu tax yàlla xamee ne yonte yàlla Muhammad ni asalaatu miraaj al ibaad julli man Muhammad dama dem ci rayaan yàlla mooma rayaan loo ma dem ci borom yéen seen rañaan mooy si julli mooy si julli ku bëgg dem ci yàlla bil rañaan rañaan nag mooy julli rek was was judd was judd was judd waqtarib waaw soo su jotee ya ngi dégg sa borom lool moo tax yàlla ni waxtu woo su jotee ba jege ma ñaanal waaw waaw moo tax bokk te liñ sopp si julli soo su jootee nga ñaan say aajo ah bokk ci sopp si julli kon julli itam nekk na loo xam nag mooy sunu connexion direct ak xam nga yàlla gannaaw bi ñu sant jaamu yàlla dafa mel ne nga am xar boo xam ne da nga da nga fa ba nga fa buum jël si baat bi mu xëy suba dagg buum ba kër ga teg kaas tiital nit ñi di mbëkk kooku mu ñi koo xam ne yàlla daf ko jox julli mu bàyyi julli bàyyi julli moom na nga mel ne oto bu amul fu ne da ngaa julli nag soo kaa préparé gannaaw bi nga defee sa tooy rek dem jàpp te yàlla ñun tal Muhammad ni ku jàpp ba pare jullee góode جن وقت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من محمد مالن وخني يالا فاو بجول جوم نيت الجنة ييب نيغي دوغ سي بولا سي نيه بالي جن سبات لوم أشهد أن لا إله إلا الله ما نجي كم سيدة قولوني أمون كن كروا جام كرو يالا وأشهد أن محمد عبده ورسوله yàlla boobu kenn la bokkul ak kenn lenam du dara si ñeneen amul kenn ko xam ne daan ku jaamu kudul moom ngërëm bokk ak keneen te Muhammad mi jaamu yàlla la yàlla ko yónni ku wax loolu yéen itam Muhammad nee na yàlla dafa indi ubbi buntu àjjana yëpp juróom-ñetti lañu wax la nga dugg ci la si neex te te jullee goo sax julli nag moom mooy la forme sublim mooy forme mi nga xam mooy nangu li nga toon yow li nga si jotee doo ko defal kenn kul sa sa borom ak loo màgg màgg màgg nag bu yeboo ngay président bu yeboo ngay king bu yeboo ngay leneen ñëpp def ngay def rek faa wane ni bàyyi nga àdduna si gannaaw moo tax nga nga jóg foo mën nekk ni nga jóg sa fauteuil sa soofa jóg sa taabal duk selal bay lépp jublu penku yalla ma ngi ni lo amon si daraja bàyyi nga ko yàlla maa ngi ni nga gis su la the police officers daa jëkk wax wax hands up nga yëkkat sa loxo yalla ngoog yalla ma ngi ni all my hands up amadara sam poche ama dara duma dara mënuma dara yaay lépp bàyyi naa xaalis bay naa alal bay naa daraja bàyyi naa lal bu neex bay naa soofa maa ngi taxaw nii ci seede ni yàlla yaa gën a màgg lépp wata dee wax xam ni nga wax mooy lan ñu bari ñu wax allah akbar allah akbar am ko dem na allah akbar الله اكبر كوكا هنا نخمني قبل الله اكبر نخمني اسيد لفهم اي اي اي اي فرط اي سنه نصب الله اكبر بدك بي السلام عليكم سوكو بخي اك امام حرام سوكو بخي جيت امام نفس سجل باخوري الله اكبر بدك بي اك السلام عليكم سوكو واخا دوك امام نين يعني حرامنا سوكو ديك يوصل يقول enen mbiimi profito de gawanto de imam bi mooy sa juraay ba mooy dawal danga war ànd ak tekk ak teey guide la waaye yow mënoo guide sa bopp bàyyi sa xel bu baax a baax a baax yeneen yeneen allahu akbar di si biir sunna lañu سيبني كدك دفس إما رفعت الرزا It can make sense فاتحة خمني مهم فارت لك جناو بينجا ييني بوخ الله أكبر بجاكو دي تاني خمني فا أم يو خمني إفوني كباي سخن allahu akbar bu njëkk bi nga xam laa dugg si julli soo kaa waxoon nga dugg xotti xam nga julli si la Ahmed nekk nte Muhammad soo ko bëggee xam ne seet ko si julli rek sallallahu alayhi wa sallam soo taxawee alif bi nga indi nga rukkoo xaa bi nga indi nga sujjoot mii mi nga indi nga toog taaye daal bi nga indi sallallahu alayhi wa sallam soo taxawee da nga war taxaw temm nag soo nee allahu akbar bu njëkk bi na fekk nga taxaw temm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 jàng fatiha da nga da nga ka jub xocc fatiha moom kenn ko dëpp fatiha nag ko xaw ma ndax dafa guddi ba xam nga xamante ne sirif radiallahu anhu ñeen kel fayel ñeen kel fayel sid xaaj malik mag ñu génne xadis yi nga xam ne ku wax bismillahi rahim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilah alamin jàng fatiha bi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 لا العظيم نقد حدثني ميكائيل لا العظيم نقد حد نقد حدثني إسرافيل قال الله تعالى يا إسرافيل من قال بسم الله الرحمن الرحيم مسلمة مفاتيح هذه الكتاب مرة قد غفرت له قد عجزت عنه السيئات وقد قبلت له الحسنات فخمني وحنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وكو من من يالا بلنا كي كلام أن يوتي فم يالا من من يالا فحصناه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 hinnek ranni malik kilani waaye man naa wuteeg malik si loolu ni laa ka jàng su taxit ma génn si set seven eyes ndax yàlla moo ne laqad laqad aatinaak sabaa min almathani wa quran alazim yow Muhammad jox naa la seven repeated verses cheikh ni man du ma génn seven repeated verses fa laa yem ba tey su ma ko defee noonu fa laa yem su ma si génn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 te am naa ngëneel ndax jàng naa bisimilah am naa ngëneel ndax dama kat dama boole basmala bi ak hamdal alim bi ubbi saar bi boole leen da seet seen kàlla fayal bañ yaa xam ne tax ñu nàmp lool ba mën ko def kon fatiha ngoogu jàng jàng bu baax nag lu ko nga dégg nga xam dafa jaaduwul si jàng bi. yàlla nag ku ne xam ne ni seenu bilaay xam ne laay siinun koo nga ni mën mënu yàlla moom moom bi nga am ak effort bi ga def day compensé ak jëm defal la ñu baax a baax loolu ko farata la ba farata la sujjóot farata la jóg sa sujjóot bi farata la salaamaaleykum farata la fexe ba am harmonie si julli fexe ba dal si julli ñu parete la intaanu ahmad asalaam nee na ku ne xam ne sàcc baaxul mais sàcc bi yées mooy sàcc si biir julli lu koy matuñu si joti matuñu ñu sëb attention gaawantu rek te pourtant ki nga fa nga war a dem di gaawantu yàlla su téye sa tànk doo mën dem yàlla tege na tuddoo dem yàlla la may xel nga xam fi ngaa dem fi nga war jox taayam kañ mooy sa borom ndax moom yàkkamtuwul te li nga bëgg mu ngi ci moom ñu nit julli bu set julli bu sell bu dal dal bokk na ci farata julli bàyyi ci xel bu baax a baax baax a baax a baax dal respecté position yi lu am solo la si na su jóot bi mat rukkoo na rukkoo bi mat koy gis xam yaa ngi rukkoo rukkoo dangaa dem jàpp sa oom ba sa yax yëpp delluwaat seen place fu ne gis xam yaa ngi rukkoo soog a jóg su jóot waaye di cof rek na gànnaaw di cofe eh, lekkam amuloo julli soo ko amee yàlla moo xam dina rafetal jaamu yàlla nga ñëw si gàttal si sunne yi monsieur di ko toujours moo di ñu sottu sottu te amu woon jàpp sax nga jàppaat yonent bi yàlla sa sam nee na bañ leen sonal moo tax defuma ko sunna waaye su loolu naa leen laaj bala ngeen li ngeen jàpp donte amee ngeen seen jàpp ngeen jàppaat bala ngaa julli nga sottu tax malaaka yi dañuy eh, eh, pap dañuy kontaan ñëw jegale yow sottu dafa tax ñaan gooñ ñaan yàlla daf kaa gaaw nangu julli goo julli yàlla daf ba pare nga liqaam julli bo julli war na am liqam julli sunu do am liqam mais farata bo julli mo xam da nga fay lu mu don il faut nga def liqam liqam liqam ak ñoo du ko ne xam na la différence mooy qad qamat salari jang lolu kon iqama sunna la donte da sax bokk si jullit mais sunna la ngir imam Maalik am ku tuddee am ñoo xam pour ñoom fardu kifaaya la ndax su kenn defee rek soxla ñeneen di ko def xam nga jàkk ñëpp nu taxawoo def loolu liqaam ñoom wéy kenn rek mooy liqaam ñëpp topp si kon fardu kifaaya la tam kenn liqaamee rek doy na pour ñëpp fardu kifaaya la sunna la nag julli booy fay bu yeboo muy ten years from now ten years pass nga leen fay ba démb wala heure boo ñëwee di fay sa ay julli julli bi dafa ànd ak julli bi dafa ànd ak liqaama su bu nekk waaw waaw ñu fonk liqaam jàngu taar bi nga julli gannaaw faatiha sunna la tam sami allahu liman xamidahu sunna la rabbana walaka xam dañ ko sopp moom waaw taayi nga taayi attaxiyatullah dañ ko sopp noonu sunna la julli coyente bi moom sunna la gannaaw nga sëlma avant nga sëlma sunna la am nañ jàng saatul fatixe am nañ jàng taaj ibrahim ak formule bu bu si mën waaye mën bi baax na waaye julli ci yonent bi mooy sunnam alayhi am ñeneen sunu yoo xam ne kooku moom ay réparation la ay defar ak yooyu ñu daan si ñëw su yàlla may tax nga ñëw si xam ni ku noot bi doon wax su ma juumul benn émission. wafalla dan kesop xunut dan ko soo ko defee am nga tuyaaba am nga am nga barke am nga bonus point soo baye amo bakar bàkkaar xunut ke jàng dafa dak balaa si kër dafa dàq balaa si place koy jàng rawatina suba si moo imam di ko jang suba si oh. waaw jang suba dafa baax lool dafa aar dafa ubi fexe bu mokkal ko di ko jàng subhaana rabil azim ñi nga wax subhaana rabil aala dañ leen sopp yonent yàlla Muhammad alayhi salaam benn xadis koo xam ne nga wax subhaana rabil man qaala subhaana rabil azimi i'taqada thulutha jasadihi min annaar ku jàng subhaana rabil azim benn yoon rek one third of your body is saved from the hellfire ومن قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات اعتقد جسد جسده كله من النار وخنيت يون سبحان ربي العظيم سيرمي بأرامنا سفر وخبرني أنك one third of your body is safe from the hellfire हमको बरेंगे bari ngëneel soo gisee ñun Malick yi ñu taay di yëngal suñu loxo suñu baaraam bi right and left nañ ko sopp rek kon ñu xam yooyu dafa baax ka defee ñu mën seet suñu diine lu mu laaj ñu jox ko kon kooku muy si samari rek xam na laal nañu côté yu bëri wala bàyyi nañu bëree bëri yoo xam si julli xaw ma na Spotify bi ñu mën laa jënd. dañ ko dépassé. Eh, baax na imaam. <coughs> waaw balli na jërëjëf. jërëjëf wax dëgg yàlla cours magistral bi nga ñu andil. ñi ngi doon xaar julli waaye nga andi noonu laab ak julli andi lu ñaari topp xam ne tabarkalla fok naa ne tey li ci laxasu ak liñ ci war a laaj yépp bari na wax dëgg yàlla am nañu mbégte wala ba waaye la nuy continuer rek dem ci laaj yi dañuy ànd ak suñu sëriñ sëriñ ahmed si ak waa itfa yépp di la jaal sa jigéen bi nga xam ne yéen a bokk ndey baay mu wàññeeku génn àdduna ñu la koy jaal di ñaan yàlla jégal ko gàttandoo ko xéewal ak yërmande yàlla musal ko ci mm-hmm. mbugal mel yàlla yàgg leen fi ngeen yàgg ko ñaanal ñu la koy jaal ci mm-hmm. turu fam euh, euh, sëriñ bi di la ko jaal ci tur White Fire yëpp waaye nag di la ko jaal ci turu sunu xarit sunu soppe sëriñ Mamor Mbacke mi ngi ànd ak ñun sëriñ Mamor mi ngi nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di am mbégte lool mi sëriñ Mansour daan wax naan tey plateau bi dafa ala dawme tabarkàlla ala dawme la ndax it wax dëgg yàlla ah, lii dañ koy rafetlu trop bu nu toogee léeg-léeg gis ko moom it mu ñëw ci suñu biir day ndekk mbekte lool sëñ Mamor ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax imaam jërëjëf jërëjëf. bàcc baax na ñu ngi leen trop ñu ngi leen ñu ngi leen ñu bu baax tey rafetlu jataay bi. jërëjëf rafetlu jataay bi di rafetlu xam-xam bi fi sen yëpp ci imam Pape Mboup di siyaare sunu doomu réew sëriñ Sidi Ahmed di la siyaare yow sëñ sox sëñ Faali sa taxawaay ak sëñ Abdou Diagne Abdou sëñ Abdou Diagne moo ma yónnee link bi invité ma moo tax ma yëg ko maa ngi koy rafetlu bu baax lii bu bu muy dañati naa koy yëg incha allah <laughs> jërëjëf Pape Pape Diagne jërëjëf Pape Diagne tubaarkàlla moom it ndeysaan ku bari yitte la yal na yàlla fay la euh, euh, kon xam naa ni euh, ñi nga xam ne ñi ngi ci ligne bi am naa fi série question waaye nag comme yéen yéenay priorité képp koo xam ne rek am nga question Pape Diagne xam naa nga xoolal ma rek ku yëkkati loxoom nga nga kii ko nga dugalal ma ko incha allah bu ko defee rek am naa fi série question yoo xam ne nii mën na ma dagg a tout moment bu ko defee nu laajte laajte yi bu neexee yàlla imam euh, euh, Pambou jërëjëf encore dellu siwaat ci ki laaj yi xam naa ne laaj bi dafa yemook euh, benn li nga doon wax léegi ne booy julli da nga war a nekk ci julli gi wu ci juli gi mu mel ni concentré wu ci julli yombul ndax it ki nga xam ne mënul concentré wu ci juli ndax tey bu fekkoon dañ koy digal duñ ko digal heure bu julli jotee mu dem ca mbooloo ma dem julli ci ndax it peut-être xañ na loolu mën ko yóbbaale loolu benn question la waaye loolu taxu woon a jug sax parce que question bi ma yor fii question bi dafa xaw a dafa xaw a xoromu kii mu ne bi muy julli tisbar ah, allo baax na ñëwal faale ñëwal waaw kii mu ne bi muy julli tisbar imam bi dafa wax ni boo leen di julleeti boo leen ñëwati julli ci ci bi bala ngeen a wékk seen jagat yi dee xool jagat yi seet poche yi ndax dara nekku ji parce que am na ñoo xam ne ni boo bu ñuy julli boo leen wekkee jagat yi dafay ñëw di di fekk si jagat yi la bi wax déggu déggu ma baax tàkkusaan déggu ma baax am na lu dagg de loolu déggu ma loolu waaw mu ne kii dafa wax waaw bi muy julli tisbaar waaw imaam bi dane hmm. Euh, boo leen di julleeti seen jaket yi ngeen di indi di pour julli si. waaw. boo leen bala ngeen ko wékk na ngeen ko empty poche yi. waaw. parce que démb bi ñuy julli am na ñu ku ñëw dugg ci jàkka ji xool nañ caméra bi mais dafa hmm. ñëw poche yëpp mu vidé ko. waaw. léegi bi ko imaam bi wax di tisbaar nu ñëw tàkkusaan juli julli julli si tàkkusaan bi ñuy julli si tàkkusaan mu tardé parce que xam bu ñuy line laa la raa bu mujj bi fi nga ci taxaw ki ñëwaat dafay nekk sawet wet waaw moom nag bi muy julli si mu gaawoon dafa tardé parce que commencé nañ julli mu summi jaget bi mais jaget bi bi mu ko summee wekku ko am na ay bagages yu bari yuy nekk léegi bi mu ne asa Allaahu akbar xel mi dem te jaget bi léegi mi ngi continuer julli mais yëg na ne ni am na ku dugg ci jàkka ji ñu ngi julli bi mu duggee ñaar bi mu jullee ñaar rakka xelam maytu ko mu dagg julli gi parce que kii dugg normalement bu fekkee day julli si war a nekk ci wetam mais comme que mi ngi julli toog toog xool kii dugg nekk nekkul si wetam mu nekkoon kon sama jeget ba mu dagg julli gi dem seeti jeget mais bi mu demee fekk na fa jaget ga mu ñëwaat bokk ca encore mu ñëwaat bokkaat julli gi kooku lan la ko lislaam wax ci loolu loolu mooy laaj bi njëkk bi الف علي السلام عليكم معي زيارة المامور جرجف دير افيرلو تيوايم دير افيرلو خام خمم اك لاي بي ديما غيس موكا لاي بير نيب صح yan yan yàlla yokk kàttan yokk wér dëgëral tam taxawaayam si fondation Xaadimu Rasuul ak communauté laaj nga laaj boo xam ne nag dafa yéemi concentration julli à 100% kenn mënu ko xam nga nit ki doomu aadama la ma doomu aadama la kenn mënu ko moo di ñu dafa am xel buy daw moo gën a gaaw sa computer microprocessing bi ñuy wax microprocessing xel doomu aadama moo gën a gaaw vitesse boobu dañ ci xamoo ko sax moo tax ñu ko sant yàlla julli mbooloo moo tax foofu la baax yàlla dafa xool rek effort bi ngeen def fu ñëw dajaloo am nangul kenn nangul ñëpp dañu war seet mbooloo fu mu nekk ñu wuti ko lu ma jaral wuti tax nag ke mënul concentré à cent pour cent exemple gàtt rek daal Muhammad alayhi dafa am benn nit koo xam dafa ne woon mën na concentré si julli ci lu xalaat leen lu boromam. dégg naa yonent bi ni ko soo paree te xalaatoo leenul yàlla am na am na bu xonq ak bu vert soo paree ma jox la ci comme yow vraiment ni nga ni nga mën nga julli teew xalaat leneen ludul yàlla dafa loolu ñu mm-hmm. ki bi ne julli mi nga xalaat moom ndax vert bi la jël wala rouge bi mu pare ñu tal ma xam ne li nga doon wax foo toll ñu ko bi ne julli maa ngi xalaat ban ban ban coat lay lay choose the green mm-hmm. or the red one jàll ma xam ne dama laa jàngat xam nga dafa am struggle booy def sa bir bopp yow xam nit ki 100% pour cent mënul nekk mais dañu bëgg nga struggle nag sa xel su dee dem pen nga xëcc ko xëcc boobu na ngay effort boobu ngay def moom la yàlla soxla jéem bi ngaa jéem ba noot sa bakkan doote la sa xëy na yéen say moo laa mën xeex boobu ngay def sa biir xel indi sa xel sa julli loolu la yàlla soxla hmm. waaw kii nag li mu def moom xam nga julli da ngaa julli xel mu dal xel hmm. mu dal c'est importance jaam yàlla Mhm. xel mu dal c'est important. Mhm. yàlla boobu nga sax ngay kay jaamu te xel dalu si. te doo focus. fekkee ñëw jël sa ko dem dellu moo dal sa xel pour nga mën julli concentré sa borom def ko. Mhm. parce que soo dee julli sa xel du si nekk xam nga loolu. yàlla bëgg loolu. yàlla dafa bëgg full attention yow mi jàmbi. li nga joxe sa kër ñu si jàkkee yàlla mën la jox yoolu mbooloo mi. واللي مو دافنك دق جلي قدم الله أعلم وايدكم مو دال خلا منو فوكس خير فوق المجلي يكون هناك خلا بسليك مجد قول قناو رايت اللفت جلي قنا يأكل قول دار جاروك إذا قارف دار سخل لنقا جلي يكون هناك إمام الله أعلم كيف فايلاتي وبسم الله كيف فايلاتي مني booy euh, comme comme ni ñuy faral di fay fi euh, julli yu bëri. Mm-hmm. mu ne um, dafa doon julli takkusaan. Mm-hmm. mu ne mu door ci euh, boo door ci fatiya bi mais ci kaw la la commencé woon tari mu ne ba fan la war la war a yem ba fan lañ ko may pour que mu pour que mu rectifier ko. mais xam nga fatiha yëpp fatiha yëpp mooy saar nga jàngee fatiha biral ko tàkku sam da nga kaa sujjootal baada salaam ndax da nga yokk si julli mais aaya boo si jàng ko grawul ndax jàngoo fatiha bi fatiha la ñu wax soo ko biralee da nga kaa sujjootal baada salaam fekkin ci baara tàkku sam la fekkin timis ak jee ngay nga yàllu ko tayoo ko dañ koy defal baadu qabla salaam fatiha lañu wax de waaye aaya boo si jàng biral ko allahu alam amoo sujud doo defal doo def fenn sujud ndax jàngo saar bi rek benn aaya rek nga jàng rectifier sa bopp sin pap jàng ma dégg de ngi lay mu ah. mu dafa comme ni nga wax dafa dafa dafa juum euh, commencé tari ci kaw ah. te tàkkusaan la woon dafa waroon tari ci suuf mu loolu la doon laajte ba fal fal nañ ko may ne su fa su fa rek dafa war a corriger julli bi ci su jeex waaw xam ko waaye fatiha la ñu wax soo ko jàngee en entier read the whole fatiha out loud da nga salaam mais ay aaya boo si jàng ba tey fatiha bi jaxewul soxlawu ngay sujjud ndax jàngalu saar bi yëpp jërëjëf yaakaar na dégg na ko allahu alam faale yaa ngi mét jërëjëf jërëjëf Haji imam ki mu ne ndax ñaar rakka fajar mën na ko koo kërëm la ta muy dem ci jàkkaat ja jàkka ja wa haj fajar yonte la xam waw waw wala dafa wara dem ba ci jàkka ji joko julli ñaar rakka fajar yi xaj faji yonte la xam moo wax alisa salaam rakaat alfajri xayru min addunia wa ma fiha ñaari rak fajar moo gën a ci biiram ma jaar ci plateau bi wax ni am na ñoo xam ne duñ julli fajar on Saturday Sunday on time. Mm-hmm. dañuy grasse matinée rek ndax dañ yaakaar dem sonn te waru. inter mm-hmm. Mohamed daan julli fajar ci këram. am neen ni mm-hmm. farate yëpp mu ngi leen julli jàkk mais am na sunu yoo xam ne da ndax bëgg nga sa kër am leer. donc mën nga julli fajar sa kër dem jàkk julli fa suba. dara nekk julli jàkka je gée ñëw sa kër julli safa wit ka defee sa kër am parti si leer bi julli fara julli fajar moom rakaatal fajri xayru min ad-dunya wa ma fiha yonent bi nee na ñaar ak di yi nga xam suñu la du farata de moo gën àdduna ak li ci biiram nit imam Malik ne koo xam ne julli safa witr nee na kenn mënu la jël si seere suñu nemee sax ay tribunal dañu war a defar nkaa sa vingt rek tàmm julli safa huit balaa ñuy nelaw balaa ñuy yeewu fajar imam waaw ci question boobu rek xam na naa li ma ciy laaj mooy ndax ki nga xam ne dafa julli fajar ñaar raka fajar këram bu demee ci jàkka ja taxiyatu masjid daf koy julli waat daf koy julli waaw waaw mais bu ko neexee jërëjëf bu ko neexee su fekkee comme julli gën suba kañ bu ko mu julli ko foofu jërëjëf waaw taxiyatul masjid suñ xaaj faari fenn nga ko mënul julli doo ko julli c'est que nga jàpp ba pare dugg si jàkka ji te fajar passé na dina suba ba pare loolu du tax yeetul masjid wala bok nga dugg si jàkka imam bi toog minbar bi te kooku ñun war nañ xam loolu war nga xam loolu da ngay dugg rek te imam baa ngi nekk si minbar bi warul maa ngi def noonu ak ak ak jant bi nekkee si diggu asamaan mm-hmm. te mhm. du naafila so ak diggante takkusaan ak timis su du gis jàkke doon naafila da toog rek nga nuy kon kon mbokk yi xarit yi line bi ubbeeku na ku am question booy posé rek mën nga mën nga laajtee incha allah imam question bii dafay dafay dafay dem ci comme euh, danga nga ubbee euh, laab euh, nu laaj question bi jëm ci sangu juma ndax ki nga xam ne dafay dem liggéeyi mën na xay fayar nga xam ne suba teel lay génn këram mën na xëy sangu dem liggéeyi bu fa jugee dem jaa euh, euh, julli juma. mën na ko donte de sax dafa ay seen njàppam après mën na ko. Hmm. Hmm. mu ngi sas njàpp ay na ten o'clock eleven dem jàkk am nga yoolu ku def sangu ajuma wala am nga am nga yoolu ku yeesal si njàpp si kese njàpp dafa tëj dara nekk si. jërëjëf. allahu alam. Hmm. mbokk yi comme ni nga ko waxee rek line bi ubbeeku na képp koo xam ne pare nga bu poser question rek mën nga présenté wu nga daal di laaj si sa laajte imam question bi salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Haji Haji Mamou ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ah, sëñ bi waxtaan bi am na solo macha allah. waxee na ah, dama doon laajte rek ndax ah, bu fekkee ne da nga ñëw di julli si juma. yàlla def nag yow bi nga ñëwee yaa ngi fekkee ñaareelu rakk alors gars yi record nañu ba ba ba taxaw loolu nga fekkee yow ndax loolu booñ sëlmalee euh, da nga war a def ne yow bés boobu amuloo juma nga dem julli ji tisbaar bi by itself wala loolu daal nan lañ koy euh, àtte nan lañ ko mën a defaree daal. ci zahir ci zahir lay wax zahir. amuloo juma dangaa dangaa sëlmal imaam bi pare nga def njulli tisbaar ñeenti rak ñeenti rak baatin bi nag yàlla moo xam mën na la jox yool ko def juma ndax ñeene mi nga amoon ba agsi waaye soo def julli gi moom dangaa dagg sa comme imaam ñen sami allahu liman hamidahu te nga ñëw hmm. nga rabbana lakal hamd yow nga dugg ci moment boobu war nga xam bokkoo sa julli sa moom moom rate nga julli nga pare kàbbar si julli si ñeenti rak tisbaar léegi nga julli yow xam ne yow pare ma amuloo ko si zahir baatin nag yàlla moo xam na la jox yool ba yàlla mu mën def kenn xamu ko xawuma ko da ngaa pare ñeenti rak tisbaar macha allah jërëjëf moo ko bokk imam mhm. ki mi ngi laajte est-ce que mën nga boy julli fajar est ce que après fatir mën nga ci tek saar waaw am na ñoo xam ne jàng ak kese rek bu nekk man dama jàng fatir ak saar euh, xam nga xam nga xam nga xam nga am ñoo xam sa dañu wax ni mën nga ci jàng ay yenn façon saar yu nekk waaye ala kulli xaal dama nga jàng fatir ak saar am jàng xam ñoo xam ne jàng ak kese ñaar rakk yëpp ay man dama jàng fatir ak saar na ak saar jàng jërëjëf. dafa am différence imam wala. amul différence. amul différence. Euh, xam am na ñoo xam ne dañu daal ma xam daanu julli fajar bu gaaw ba nit ñi laaj sax jàng na Fatiha. alayhi salaam. Mhm, macha mhm. imam ci imam ci question boobu euh, Haji euh, Mamoud posé léegi. ci mhm. laa bëgg a wékk laaj bi may laaj rek. parce que dafa wax ni booy julli ju juma ba taseeg rakka bu mujj bi nga xam ne bokkutoo ci woon rakka bi sax euh, nga wax ko ne da ngay sëlmal ndax loolu aussi valable na yeneen julli yu fekkee da nga ñëw taseeg rakka bu mujj ba te bokkoo ca bu pare bu imaam sëlmee da ngay sëlma aussi teg vers yu lii waaw xam nga xam juma moom ñaar rakk la. Mm-hmm. maa dafa wuute juma rek la yàlla lim si julli. yonent dina am idaa nuudiya mhm. jumaa moom julli julli la boo xam yàlla moo ko yàlla moo ko spécifié mhm. su nga ñëw jàkk julli bi julli nga ñëw taxaw fekkee ima fekk imaam bi wax na rabbana wa lakal sami allahu liman hamidahu ñeenteel rakk bi bu mhm. doo doo doo doo doo seulement da nga àggale da nga jóg taxaw rek su ne salaamaaleykum nga jóg taxaw rek mais dañu bëgg nañ wax bi nga wax akbar kooku la ñuy wax takbiratul iftitaax mm-hmm. imaam bi ne asalaamaaleykum mm-hmm. bëgg nañ nga jóg taxaw ni allahu akbar kooku mooy kàbb bi nga xam moom ubbi soxla wu ngay seen mën pour dooraat déedéet jërëjëf tax nag ngay sëlmal mm-hmm. parce que juma ñaar rakk la mais tisbaar ñeenti rakk la moo da nga yene yim fa julli tisbar moo tax nga yene yéene yi bokkuñu da ngaa yéene julli tisbaar léegi nag amatoo juma yo xam nga moo tax nga war def si ñeenti rak séparé xam juma nga yene won waaye te nga imam bi jóge si rukko ba pare léegi tisbar nga julli da nga yene tisbar moo nga dog julli gi yene tisbar ah ok ok hmm. imam eh, laaj am amna laaj fu rot legi ki hmm. mu ne dafa dafa julli dafa nekk ci weeru koor euh, julli tàkkusaan ba pare julli tisbaar ba pare mu jullee mu far nelaw foofu ba timis jot mu dog juli tibis julli gee ba ca suba ga bi mu jullee suba ba pare xelam dem ci ne julliwul woon démb tàkkusaan mu ne naka lay def kooram googu ndax dafay fay bis koor gi ak naka lay réparer julleem googu kooka eh, xaw ban sant la sant waaye xam ko ko koor moom kooram moom baax na Jóob la sant <laughs> waaw aj fay ko moom sant moo xam naa ne mu sant Jóob it moom <laughs> daf leen xam daal kooram baax na kantaa mm. julli gi nag mm-hmm. moom dafa dem ba fajar mu fàttaliku ni julli woon takkusaan dafa fay takkusaan dafa fay mm-hmm. takkusaan mm-hmm. ah fay timis pay gi mm-hmm. fay suba gi waaw fay suba gi julli suba comme suba da nekk mu julli suba mu julli waaw mu julliwaat ko waaw kon rakka yi mu julli woon yëpp da koy fayaat waaw waaw parce que ah, waaw mbokk yi nag waram baax na moom voilà yi kii am ci laaj bi mooy imam Pape Mboup képp koo xam ne am nga question boo posé rek mën nga jëpp in incha allah la ci waxtaan wu am solo wu yaatu yi nga xam ne defal nañ ko ci diggante laab ak julli imaam kii dafa wax ni ndax mbooloo jigéen bu nekkee ak seen moroomu jigéen mu leen jàngal alxuraan ndax bu heure julli jotee mën na nekk seen kanam jiite leen ma may ma may bañ na loolu ma may si bañ na loolu am ñu wax ni Seydina Aïcha radiyallahu anha dana jiite ay jigéen ay ma may ni moom bañ na loolu moom ngir ko nangu it du ma si wax mm-hmm. dara waaye imaam Maalik moom bañ na lool. imaam mu gën a waaw waaw sin ki mi ngi laajte dafay dafay liggéey guddi. waaw <laughs> dafa nee dafa dañu dañ ko wax ne boo julee safaar wi te ba pare da war a tëddi moom dafa war a génn dem liggéey guddi ndax dafa ko war a juli balaa muy génn. waaw xam nga safaar wi te ku mu nekk julli géey léegi julli ko immédiatement yooyu boo nga bañ dem liggéey ba yóbboo nekk sa kër mu neex la nga julli géey julli safaa wit si saa si om bu la neexee nga yëkk baax na dégg naa sidna Abubakar radiyallahu anhu kan julli géey rek si saa si mu julli safaa wit xam daf daan ragal ndeysaan dog am si diggante bi dog dog ba du ko mën julli sidna Omar mu daane ba pajata jege si weste baax na ñu xam ni aussi safaa wit soo ko defee ndeysaan am ñoo xam ne defen yàlla soo julli safaa witti rek amutoo droit de beneen naafila am ñu gëm loolu soo ko defee rek safaa witti pour ñoom soo ko defee amutoo droit de beneen naafila kook dégg-déggin la rek su julli safaa witti léegi sa jàpp toj ba neex nga jàpp julliwaat naafila ndax yàlla du store loo xam dafa am ay ay business hours after business hours yi kenn nongu sa ñaan kenn nangu sa julli kenn du la jaay yàlla amul loolu yàlla his doors and gates are open for all times to come ne mën nga jël sa rawit léegi-léegi toogaat two hours jóg jàpp julliwaat naafila bu la neexee ndax yàlla du store la bëgg wax mais bu ñu wax ne soo julli sa rawit amuloo droit naafilaati déedéet déedéet déedéet yàlla moom store open 24 hours egam CBS ngay gis ni 24 hours waxtu bu jox la garab asalaam daal yàlla kon yàlla mën ko jaamu anytime neex nga julli ka nag bala ngaa liggéey bu la neexee léegi léegi nga julli nga def sa safa huit heures mu jeex comme bu la neexee nga def ko après safa huit heures dafa am ay façon huit heures ñu ñu wax ko une pap safa huit heures am ay façon bu la neexee nga julli huit def ñetti rakk da ngay ak bu ne jang jàng fatiha ak saar witre bu la neexee nga tuddee ko witr. julli ñetti rak yo xam ñettali rak rek to. premier rak da nga jog taxaw deuxième rak jog taxaw troisième rakk nga toog taaya salaamaaleykum witre nga bu la neexee nga def comme wa hanafi def imam abu hanifa alhamdulilah alayhi ngiram da ngaa julli comme timis premier first raka fatiha ak saar sa kaw second raka fatiha ak sa kaw toog taay xëy na nga jóg fatiha ak sar bala ngaa rukkoo nga jàng kunuut nank soo ko fàttee ba wax rabbana walakal hamd nga jàng ko bala ngaa dem sujud boobu oh, aussi mhm. la neex nga def comme Maliki def ñaar def benn jërëjëf la si neex moo ko bokk kii mi ngi mi ngi laajte eh. mbokk yi ah su ngeen amee question rek mun ngeen yëkk si loxo wala ngeen laaj rek. kii neen dafa am lu ko jaax dafa di gis si mbokk ah, sénégalais yi gambien yi ah, dàll mi nga xam ne dafa mel ni ko ànd ak sobe di dugg fu ne ñoom dañuy bu ñuy léeg dañuy lal si jaada rek jël dàll teg seen kanam pour julli. waaw xam nga li nga sutura bi si julli xam nga kooku dan kooku kooku kooku soo ko déggee kooku sunna la sax si si si si si julli sunna la loo xamee ni dafa war nekk li ko doore sa tibu jara ba sa conc na xaw guddi na nekk lu set lu laab hmm. lu laabul kenn ko teg si julli kenn ko jegeloo fu nu jullee te ku julli war nga dem place boo xam ni kenn du la déranger te lor kenn kenn du la lor su fekkee mënul nekk ne ndax fi nga jullee xat na amuloo fenn nga teg loo xam dafa laab ba tekk si kanam nekk loo xam ni dëggal la dana mat diggante dibu cara ba sa coonc waaye daal dafa tuuti ana saay seventy nine ci daal <laughs> imam euh, kii mu ne dafay julli ci jàkka imam bi buy sëlma moom dafa tàmmoon imam bi nga xamee moom lay jullee juróomi waxtu mu tàmm ko ci moom heure bu imam bi waxee buy juli bu taayee ba pare buy sëlam sëlmal danaan asalaamualeykum nee na mu dem ci jàkk boo xam ne nii imam bi buy sëlmal danaan salaamualeykum tegaat tuuti ne salaamualeykum nee na comme du kenn du jiitu sa imam bu imam ne salaamualeykum bu njëkk ba moom mu ne salaamualeykum ndax julleem wér na wala déet waa xam nga salaamaaleykum farata la dëkk bi nga wax salaamaaleykum mooy farata ñaareel euh, koo xam fekkee da nga am imam bu laaj jiite wala imam bi si boppam imam bi si boppam d'abord salaamaaleykum ñaari yoon la ka dëkk bi rek mooy farata salaamaaleykum doog na julli ok dëkk bi mooy mooy mm-hmm. farata beneen bi sunna la mm-hmm. nga xam ne dafa am ku kaa jiite ki xam ne dafa topp si gannaaw imam mm-hmm. salaamaaleykum yi mu yi mu dëkk wax mooy farata ñetti yoon la ko war a wax si ngir imam Mahdi nga wax ñetti yoon asalaamaaleykum su fekkee dafa am ko laaj jiite yoon nga ko war a wax dëkk bi dangaa doori sa sa digg bi jëm sa ndeyjoor jóge sa ndeyjoor ñëw si digg bi jóge si digg bi dem sa càmmoñ salaamaaleykum soo ko dikkee wax ak soo ko dikkee wax imam li ko yàqu moom ne xaraam mm. bi da am na ñu ni sooy abu xanifa rahmatullah alayhi su imam bi ne asalaamu balaa mu wax aleykum daa gis ñu door naa asalaam mais il faut imam bi abi moom moo kaa jëkk wax asalaamu wa rahmatullah daa gis ñu door donc di ko wax ak bopp kooku beneen ngeen mais maa ngi nanguwul loolu hmm. maa ngi dafa imam bi ne aleykum ak julli gi wax asalaamaaleykum soo wax nag julli baaxul ku ne ak moom kon kenn bëggul sañ su julli xaram waaw te ni nga gis salaamaaleykum wa rahmatulah wax waaw xaaj Pape euh, Sylla dafa yëkkati loxoom Sylla na ubbi leen ko micro am Sylla wala Pape Kébé Pape Kébé bisimilah. Sylla wala Pape Kébé. Um, xam na rek le temps ñaar ñuy ñëw ñu fàttali rek ne euh, imam Pape boobu la nekkal ci émission bi bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. dama doon laajte ndax jigéen moom buy julli fajar mën naa jàng xunnoot ci suuf waaw xam nga jigéen soxna si dafa jàng dafa jàng all the time ci suuf all the time xulnoot waaw ndax am na droit jàng waaw xunóot góor a mm-hmm. jigéen ñoo si yem mm-hmm. xunóot góor jigéen ñoo si yem xunóot du tax mu wàcc yonent Yàlla Muhammad salaam dafa am xeet yoo xam ne ni woon dañ nekk julli yonent Yàlla Muhammad yónni si ñoom seventy hafizul quran ñu mokkal alquran pour jàngal leen seen diine waa dëkk dëkk yi rey ñëpp rey rey yëpp ñu tan xam mer mer ko mu jàng ko noot every julli for one month pour rebu waa dëkk yooyu kon ñu xam ne même pandémie bi ke jàng dafa dafa dindi balaa dafa dafa aar nit moo tax man ka jàng ci ka dafa baax amul góor amul jigéen nag jërëjëf waaw jang jigen dafa jang all the time silently jigéen su jang dafa jang nank dafa yelo pour mm-hmm. jang sa kaw a mm-hmm. góor nag su day julli suba ñaari rakk bu nek daf ko jàng nànk ngir imam mali jërëjëf imam ahmed ngay gis ñu ka jang ci kaw su ne julli witr ko ñun def lolu ku ñu dëkk nank jere loolu mo war boko boko di fàttali ko rek ñi nga ànd ak imam Pape Mboup di fàttali aussi suñu mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci ligne bi képp koo xam ne am nga ci contribution wala euh, loo ci war a laajte rek mën nga woote gis naa léegi euh, suma mbokk euh, sunu wóllare Abdoul Aziz waaye comme téléphone bi laay kii Pape Kébé Pape bismillah wa rahmatullahi salaam wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu imam Euh, diko ko rafetlu ci jotaayu jotaay bi euh, dellu it euh, di nuyu Ahmed ak suñu yaay ju baax ji soxna ma jigéen imam li ma bëggoon laaj dama bés dama mës dem ajjuma juli julli benn juma boobu maa ngi fa doon juma boobu mosuma fa dem maa ngi fa doon doog a dem bés la ma jaaxal imam bi bu mu kàbbaree amaana ko xëy na bisimilahi bi bi muy tari Fatiha xëy na bis bi wax na ko ci suuf mais lii wax ci kaw alhamdulilah la tàmbale te ah, ci boo xoolee ci mag ñi dañuy werante naan ah, Fatiha que faw foo koy tari danga koy tàmbale ci ah, bisimilahi rahmaani rahim ndax julli boobu ndax man ndax wóoruma ndax moom wax na bisimilah bi ci suuf wala déet maanaam julli boobu Ah, ndéem imaam moo la jiite maanaam lu ci yoon wax. waa sëñ Kébé jërëjëf allahu alam xam nga imaam Malik imaam Malik moom waajuram mooy Anas sidna Anas radiallahu anhu moo doon bëkk nekk yonent bi alayhi salaam imaam Malik mu ngi juddoo Madina fa la màgg fa la bind Muwatta téere bi nga xamee ni si si rek moom lañ téere mooy téere bi njëkk compile mu indi xam-xam bu xadis yëpp xam-xam la Malik ci téere bi moo tax nee na moom ku julli farata dañu sib nga wax aoudu billahi min shaitan rajim dañu sibit nga wax bismillahi rahmani rahim julli farata de imam Malik ne dañu sib nga wax bismillahi rahmani rahim ak aoudu billahi min shaitan rajim Sénégal am ñoo xam Malik dañu dañu kàbba rek wax directement alhamdulillah rabbil alamin ci julli wér straight ndax Malik neena so waxe waxee bismillah rahim kon da nga yek ci fatiha benen ayati fatiha dafa nekkoon juróom ñetti aaya te kon génn nga yàlla wax ni waqad aataynaaka sab'an min al-mathani wa qur'an al azim yàlla mo ni jox naa la yow muhammad jox naa la seven repeated ayas so ci yokkee bismillah rahim ma ma nee na kon dafa nek eight ayas ndax tax Malik ni ken ken ko ci wax ndax ah, basmala dafa ñëw pour euh, wane ni jaa ngi dal saar bu bees saar yëpp am nañu bismillahi rahim sauf tawba xam nga fara na nga am cent quatorze hundred fourteen suras yëpp ñoo ngi doore bismillahi rahmani rahim kon mu ni moom basmala differentiate one suura from the other one kon dafa wutale suura yi rek kon am na comme ñëpp ko bokk kon kenn ko wax warul nekk loo xam farata c'est-à-dire que am mooy baraa mooy tawba te tawba tax yàlla indi ko histoire bu gudd la yàlla dafa mere woon ñoo xam dañu violé woon seen contrat moo a wax ko te basma dafa waroon nekk moo nekk suratu naml innahu min sulaymana wa innahu bismillah rahim kon Malik ngiru Malik doo jàng bismillah rahim soo dee julli farata ay Malik nee na nag rahmatullah alayhi dañu sopp nag ko wax bismillah rahim si julli sunna naka shafa witre naka ay naafila naka fajar waaye julli farata moom neen kenn ko wax حنقوق حمدان مالك كده امام الشافعي نك رحمه الله عليه موم وني موم فرص نواخ بسم الله الرحمن شافعي جملوني امام الشافعي دونت بسجع يعني امام مالك من دفع بسم الله الرحمن الرحيم اوت لاود هذاك دفع في خيبه ممتم جامسي 7 ايز كون بس الرحمن دفع نك بين ايه بسم الله الرحمن الرحيم نك بين ايه الحمد لله رب العالمين نك نار الرحمن الرحيم نك نت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 dañuy wax bismillahi rahim silently nank nañ kaa wax su ko wax nag seen paade xasako naa si Ahmad Tijaan Chérif radiyallahu anhu yaa ngi ko yàlla fayal ak Seydi Hadj Malick Sy Pakay Raghibine ñooy ne xadis bi nga xamee ñun maa ñun ñun ñun ñun Tijan, dañ koy wax sa kaw mais dañ koy boole nag bismillahi arrahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin boo ko dog nag arrahmani rahim maliki yawmiddin. ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim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 إياك نعبد وإياك نستعين جبوز اهدنا الصراط المستقيم جبوز صراط الذين أنعمت عليهم جبوز غير المغضوب عليهم ولا الضالين جبوز هذا فين بحنا هذا بورن ريسبكت ست أي يلا وقت تبني يلا وقت بعد جبوز after each آي ما شاء الله آمين نخدر قص آمين نخم آمين من بقص فاتحة آمين بقص فاتحة أنت صوب Ngante seen nga wax te am na benn laaj bu fi léegi kii mu ne euh, buy dafay julli si fajar astafurlaa dafay julli si ci jumaa ji ji suba bi muy ñëw fekk nuy julli commencé julli dafa bi muy dugg rek la ñuy kàbbar mais comme fajar gaaw na nee na dafay ndax mën nawee profito julli ñaar raka fajaram daw fekki euh, imam ki fekk groupe bi ñu ànd ak moom julli suba xaaj euh, fayde xam nga fajar sunna la mhm. fekkee ni imam da dafa jàng jàng bu gudd ngoo mhm. leen daa am sa sago julli fajar mhm. dafa ngaa julli amul interférence ndax dafa mën ngaa julli doo xam loo julli ndax imam nga jàng sa kaw ak ak speaker bi mën na yàq sa julli doo mën concentré mhm. ni gën mën nga dem topp ka sa farata na farata moom moo la fa indi soo paree julli farata julli suma daa mën farata fajar fajar mën nga dek. fay rek daa ka fay nag avant tisbar super passé doo ko fay su mhm. jant bi fenkee nga kaa door fay ba ba jant bi ba ba tisbar ba tisbaar mais comme julli suma mhm. moo la indi da nga yaakaar ni soo ko soo julli fajar da nga da nga tardé farata bi dafa farata ba pare mi ngi làqu nag man concentré sa ñaar nag ak sa sago xayrul waaye des fois dafa wóorul. jërëjëf mbokk yi xarit yi di ànd ak imam ab kame bisimilah. imam dafa am suma benn dëkkandoo bu may laaj. Mhm. mu ne dañ ko mës wax ne comme booy julli boo dee def boo defee fatiha boo ne bisimilahi rahmaani nga def fatiha ba mu jeex nee na saar boo ci teg dañ ko mas wax ne que da ngay waxaat bisimilahi rahmaani rahim mais même bu dee boo koy jàng kaw bisimilahi boobu ci suuf nga koy wax doog ci teg beneen saar waaw xam nga kooku ba ay ay ngir la rek xam nga Shaafi imaam Shaafi rahmatullahi alayhi dafa jàng bisimilahi rahim sa kaw daa ngi bismillahi rahim saar bi nekk sa kaw dara nekku si dara nekku si gis naa ñoo xam te fii dañ jàng Fatiha sa kaw basmala bi sa kaw saar bu soob jàng sa kaw dara nekku si dara nekku si dàqul julli taxul nga réparé sa julli dara nekku si soo gisee ko jàng nànkit bare na ñu jàng nànk lool waaye bare ñoo xam ne kaa birin yëpp baax na. ma maanaam maanaam boo defee boo waxee bisimilah rahmaani rahiim nga jàng Fatiha ba mu jeex. waaw nga bëgg ci teg xuluwal. wala ayatul kursi mën nga waxat bisimilah yi nànk ci sa biir. doog ci teg ayatul kursi bi ak wala maanaam saar boo ci mën teg. waaw xam nga ayatul kursi du saar. gayit bopp saar boo tax kenn ko wax bisimilah ayatul kursi yeeg amana rasul law anzalna laqad jaakum soo ko dee nga wax bismillahi rahim mukk nak nekul bop saar nga nga jël direct nga su na ikhlas la kum neex nga wax bismillahi rahim ikhlas ixlaas yàqu sa julli bu neex nga wax sa kaw yàqu sa julli yàqu sa julli te ko waxe nankit xayrul yàqu julli soo ko waxee sa kaw su nga nga julli gi da timis wala suba dara nek si ayatu kursi do ko jang wax bismillahi rahim lu si ñaan ñaan nak man do wax ayatu kursi ak ak basmala mais julli moom wax mukk bismillah rahim jàng ayatu kursi wala amana rasul wala wa anzalna wala lu mu mën doon lu mu nekk bopp saar saar dara dégg ngay tàmbali loolu hmm? baax na ki mi ngi mi mi ngi mi ngi laajte am na da ko déggul mi ngi laajte ndax buy tiim bu di war a fay dafa war a Eh, ndax benn tim bi dina julli julli mu war a fay yëpp wala saa su ne dafay saa su julli benn rek daf ko war a tiimal def naa waxoon nga fa sànq waaw xam nga julli farata boo julli far ànd ak tiimam mu mhm. benn tiim mënoo ko def julli ay julli farata dede, benn farata bu ne dafa ànd ak tiimam benn mais mën nga julli benn farata nag si tiim boobu nga julli su nuy bare bare na fekk na nga wañ wax si diggante bi waaw ok very important soo xasee wax rek da ngaa tiimal farata bu ne ak tiimam na farata bu ne ak ak liqaamam tam kenn liqaam bëgg julli ay tanu julli déedéet julli farata bu ne ak liqaamam julli su nekk kenn ko liqaamal kii moom ne na dafay def saa yi saa yu julli balaa muy tari faatiya dafay wax a a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim mu ne ndax baax na ndax mun na ko def si ràkk bu nekk waaw wax nañ imam malik nee na dafa si julli farata nga wax aoudu billahi min shaytan rajim dañu sib nga wax bismillahi rahmani rahim mais julli sunu ma ne julli sunu bu ma def damay wax aoudu billahi min shaytan rajim bu nekk ak naafila bu nekk ak julli farata dan dama ko wax ndax bokkul si fatiha sax musluwaay la rek di farata imam Maalik nee nañ ko sib doon ko def yàqu julli nag sib mooy loo xam ne soo ko defee yàqu julli mais kenn bëggu ko yàqu julli jërëjëf xaaj Faal da ngay ënmi oh. ënmital jërëjëf xaaj euh, imam Pape euh, kii mu ne euh, moom toujours ci jàkk ji lay jullee parce que julli mbooloo njariñ yi li ci nekk mënu ko am ci julli kenn waaye comme euh, jàkka ja moom bu koy dem dafa bëgg rek heure day natt heure bi mais wax dëgg yàlla nee na heure bu demee dina rakka dina ko raw soit benn rakka ñaar ba ñetti rakka sax dina ko raw nee na kooku noonu ndax yool bi nga xam ne ki nga xam ne bi nga koy jullitu mbooloo war na ko am moom nee na mi ngi koy am wala déet. yàlla yàlla rek a xam. Mm-hmm. yàlla rek a xam. yàlla xam si yéene ak sa prestige bi nga am pour dem yàlla rek moo xam loolu. innama al amalu binniyat yonent bi moo ko wax innama li kulli imri'in ma nawa yonent nee na yéene yi da yàlla dafay jëf yéene yi nga am bàyyi sa kër bàyyi sa lal bàyyi sa eysi bàyyi sa lépp dem si jàkka ji yàlla mën na jox yool bi ay kémul wax nag daaka man ko mun xama si dara ndax dara wóoru ma sax yàlla na yàlla nangul sama julli man soo daag nangul keneen dañuy wax dañuy wax rek yéene bu rafet ni yéene bi nga am pour dem yàlla mën na nangu sa julli nga dina sax ñëw nga fekk ñëpp julli ba pare des fois dañuy jàkk xaaj faani ñëpp julli ba pare yàlla jox la yoolu ku julli est-ce que yàlla jox la yoolu mbooloo bi nga xam danga karati ndax intention bi nga am pour ñu julli si est-ce que yàlla yàlla bëri xam naa ne ñu ngi waaj a jëm ca cëppaandaw gi am na ku am question rek bi question ci pour question yi mujj la euh, kii mu ne ndax bi bi dafay julli naafi la premier rak premier raka bi mu julli daf ko yelu deuxième raka bi mu juum wax ca kaw ndax euh, naafila boobu da koy baamtuwaat wala mën na ko bàyyi noonu naafila waaw bu dee naafila allahu alam mën na ko bañ a mën bañ a euh, sujjóotal waaye xam nga am ñoo xam orthodoxe ñu wax toujours erreur moom suñu dañ ko réparé rek amul farata amul sunna xam nga orthodoxe ñu wax ni hmm. amul farata amul sunna erreur moom suñu dañ ko réparé rek dégg nga xam ne rakk bi da nga koy waroon ko bil mm-hmm. da nga kaa sujjóote rek. Mm-hmm. Mm-hmm. ah bon. julli julli la. dëgg la. xam da nga war biral nga juum ñelu. da ngaa def ba abla salaam. da nga waroon ñelu nga juum biral ko da ngaa def abla salaam. waaw waaw imaam xam naa ne ñu ngi jëm ci ci gi. bu ne sa waaw xaaj. kii nee na mhm. question bi dafa xaw a sax nee na dafa dafay dafay jóg di naafila nee na euh, dafa am jëkkër mhm. waaye dafay jóg guddi di naafila jëkkër ji dafay nelaw bi naafila mhm. mu ne jëkkër ji yam si ne ko naka nga mu nak nga may mu ne bàyyi may nelaw ngay jóg di naafila bu mu amati euh, nee na xamul ndax dafa war sàcc di jóg di continuer di naafila wala dafa war a bàyyi naafi <laughs> naafila ji imaam waa xay fay xay pap am ñoo xam nag maa ngi wax rek fan ma ngi sama xel rek fan ñi ni ndeysaan dama yërëm ñi nga xamee diggéen nañu nekk si conditions yi métti yoo xam seen jëkkër amuñu diine hmm. yërëm góor ñi nga xam ne si conditions yoo xam seen jabar amuñu diine dini naafila nag guddi nag xam nga du farata hmm. Hmm. fekkee fekkee farata la woon mu koy tere amu si benn droit. amu si benn droit. ndax farata pour góor la pour jigéen. julli naafila nag jëkkër am na si yow xaq. il xam loolu. loo bëgg-bëgg jaamu yàlla. am na jigéen ju sell maa ngi bëgg pàcc turam. daan julli téeméer rakka guddi gu nekk dafa def chaque. benn rakka. ñëw tëdd si tëdd si wetu jëkkëram. fokk au daa mu jóg àggale waa yéen ten rakk mhm. waaye jóg taxaw jëli yëpp aussi jëkkër soxla la ko aussi jaaruwul islam dafa bëgg équilibre mhm, mhm, góor guy jaamu yàlla bu ëpp sax à part farate jabaram am na dora gi lekk tuuti islam ku ne na nga am xaq sa morom dëgg la mais na fekkee def sa condition yi la war ba pare le reste nag nga am flexibilité am diplomatie boo xam daa xam ni ñu kaa réglé ak sa jëkkër ak sa jabar jërëjëf imam xam naa ne haj pap ma euh, bu fekkee ne rek sunu euh, sëriñ Mamor mi ngi ci ligne bi euh, ñi ngi koy sant di ko gërëm waaye it xanaa di ko jox rek mu nuyoo mbokk yi bu ko defee haj pap nu jox la nga joxe programme bi bala noo ñëwaat ci imam pap bu tàggoot ak moom sëriñ Mamor waa kay jërëjëf bismillahi rahmaani rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه أمته أجمعين آه، جرجف الحاج آه، فالي جاي نيغي لي گرم تي تخواي بو بي نيغا سايتو لگي آه، جرجف سيرن باب جاي بي جيتي ادفا دي رافيت لو موميت تخوايام اك ياتال گيم كو بن مانا بوك جتاي بو سل waaye jërëjëf euh, imam Pape Mboup ci xam-xam bu leer bi mu fi génne mm-hmm. euh, te ànd ak maandu wax dëgg yàlla maa ngi ko doon déglu waaye tontu yi ndeysaan naa ko borom xam-xam ya waxee rek mm-hmm. ca téere noonu la ko indee euh, yokk ci wàññiwu ci loolu alhamdulilahi rabbil alamin loolu dañ koy soxla ci borom xam-xam ak maandu xam-xam bu àndeek maandu borom du ci indi parparloo du day indi rek kemtilaayal na ko na ko diine indee kemtilaayal na ko xam-xam indee mm-hmm. te loolu seetlu nañ ko ci ay tontom ak waxam kon ñu ngi koy gërëm di ko sant ci loolu mm-hmm. eh, niki noonu di delloowaat siyaar sunu mag sunu doomu ndey Serigne Sidi Ahmed bu baax a baax di ko ñaanal jàmm mm-hmm. eh, mook njabootam yépp di siyaar nag woy déglu yi ci euh, ligne bi yëpp di euh, dolli ko xam-xam ñii di laaj ñii di déglu ñii di teewlu ñoom ñëpp ñu ngi leen di euh, siyaare bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm di ñaan daal rajo bi ak programme bi yàlla na jëm ca kanam te ñëpp di ko jëriñoo ñu dem ba watt meññetum njëriñ li garab gu am njëriñ la gu du ma wax garab gu neex la waaye dafa neex ànd ak baax Euh, te Cheikhuna Ahmadul Xadim daana wax ne euh, mhm. neex de ci put rek la yem baax nag day ànd ak yow ba àjjana kon nag moom li jataay bii day jataay bu baax jataay gënu ko ndax luy dolli ko xam-xam la te luy gën a leeral sa julli gën a ja leeral sa jaamu yàlla te ni mu ko mm. waxee julli di li gën a jaamu yàlla gi gën a foor nga xam ne moom la ñu sallallahu alayhi wa sallam indiloon sëriñ ba mu demee ca suñu borom ba mu recevoir ko mm-hmm. mu di leeral mm-hmm. nan lañ koy defee ak mm-hmm. euh, nan lañ koy defare loolu lu ama am solo la ba tax ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax xam naa rek su fekkee sañ naa cee yokk dara eh, ngiruk leeral rek ma yokk ko ci bismillah waaw waaw li ma ciy yokk rek ngiruk leeral ci eh, mi ngi jëm ci way laaj yi ñi doon mm. laaj imaam ak leeral yim leen doon leeral ci wàllu eh, basmala ci biirub julli ci mm. fatiha mu leeral ko leeral ko am solo ni ko imaam malik indee mu wax ne wax bismillahi rahmaani rahim ci julli dañu ko sip wax wax a'uuzu billahi min shaytaani rajim ci julli dañu ko sip euh, euh, yaakaar naa sax xëy na maa déglu waaye leeral na ko ci jullik farata lañ ko sip waaye sibuñu ko ci jullik naafila ak naafila war may nañ la nga wax a'uuzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaye bu dee ci jullik farata dañ ko sip imaam Malik moom la ko indee hmm. euh, kon loolu lu am solo la lu mat bàyyi xel la Euh, niki noonu itam mm, julli yooyu ñu doon wax ci julli ñaari rakkay fajar lu jiitu julli suba e, moom itam doon naa ko teewlu ma ma yokk ci rek loo xam ne luy jariñ la e, hmm. am ñu ne ndax ñaari rakkay fajar manis na cee dolli aw saar i imaam tontu na ko nee na manis na ko cee dolli comme neexit nga jàng fatiha hmm. waaye ma yokkal leen ci ne boole ci fatiha daa ëpp tuyaabo Hmm. waaw boo boo boo ci def baax na am nga am nga am nga jullik naafi la waaye boo ci yokkee aw saar dafa ëpp tuyaabo ndax eh, eh, jàng naa ci téere bu ñuy wax masalikul jinaan bu cheikh hmm. ma ahmadul xadim wax ca ne képp ku jullee fajar e ñaari saar yi gannaaw fatiha sun borom dana la musal ci bis booba ba jant sax hmm. dara lu ñaaw fa dal nga xam ne bu jant bi doon bu asamaan si doon taqaloog suuf si sax yow da nga mucc ñaari saar yooyu nee na mooy alam nasara ak alam tara waaw kon loolu yaakaar naa lo am njariñ la lu am tuyaaba la képp ku jullee fajar alam nasara ak alam tara gannaaw fatiha kon nga dégg ci kon julli ñaari rakkay naafila yooyu ñuy julli fajar balaa suba kon yokk ca aw saar am na tuyabo Ah, mm-hmm. donte boo ci jàngutu saar it am nga julli waaye boo ko ci yokkee da ngay day ëpp tuyaaba loolu it ak ndolleen la lu ma ne woon dinaa ko ci dolli rek ngir ñëpp bokk ko jëriñoo wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëñ maam Mahmoud jërëjëf waxtaan bi rafet na macha allah jërëjëf maa ngi rafetlu sa dolli kooku dafa dolli ñu bëri <laughs> gonte sax waxoon na ne julli parata imam malik ne daf dañu sip wax basmala wax aawdu billahi koo def ko sib si jóge mu ngoog waxoon nga ko moom waxoon nañ ko li rek ma yokk ma yokk ci it na bu dee bu dee dee jullik farate itam ni ñu sibee bismillah rahmaani rahim ci fatiya noonu la ñuy sibee nga saar wi nga di ci boole bismillah rahmaani rahim defe naa imaam leeral na ko waaw bu dee man nga ko wax mala gi mën nga ko wax ci faatiya mën nga ko wax ci hmm. saar yi waaye bu dee farata hmm. dañ koo sib ci dañ koo sib ci saar wi hmm. loolu defe naa imaam leeral ko ngeen dégg jërëgén jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mamor jërëjëf kon nag ñu uh, jox kàddu gi rek xaaju Pape Diagne waaw ima uh, uh, xanaa waa ñu jégalu rek balaa ngay tëj bismillah ñu sant bu baax a baax sëñ Pape Mboup gannaaw bu ñu ko nuyoo mm-hmm. Euh, kontaan si moom bu baax a baax si disponibilité am ak xam-xam bi fi wàcc comme ni ko sëñ Mamour waxee di nuyu sëñ Mamour itamit di ko ziar contribution bi itamit di koy rafetlu bu baax a baax. Mm-hmm. wax dëgg yàlla euh, ñoom ñaar ñu nekk euh, ay imma yoo xam ne ñu fii si Washington am taxawaay yu rafet si diina ji ak mbokk gi. Mm-hmm. rafetal ko ba mu rafet. waaye tamit eh, xanaa rek di fàttali sunu bopp di fàttali mbokk yi déglu comme ni ko sëñ Mamour waxee nee na sëñ Pape li mu doon def yëpp dafa doon dimbali ñi doon déglu te tamit loolu nekk dëgg. Mm-hmm. Eh, te tamit ñiy déglu léeg-léeg xam nga comme ni ko oustaz jàngale si waxtaan bi mu commencé ba léegi. Mm-hmm. Eh, léeg-léeg mu andi la xanafiya léeg-léeg mu andi la xanbal léeg mu andi la imam Malik wala mu andi la Shafii mm-hmm. waaye bu ci nekk mu wax la ko te loolu borom xam-xam bu ko dégg di ko ràññee. Mm-hmm. Eh, waaye kii déglu su fekkente ne dafa nekkoon koo xam ne benn nopp la maanaam su ma benn nopp koo xam ne benn ngir rek la doon déglu. Mm-hmm. Eh, kooku su dégg imam Shafii te mosul xam ko imam Shafii wala mu dégg Hanbal wala mosu ko xam wala mu dégg eh, beneen mosu ko xam. daf koy mm-hmm. xaw a day lëndamal xelam. ndax day dégg lu bees bu demee ne ah man kan la ma doon def nekk te wala boog la ma doon def ba imam bii nee na mu dem andi werante fa mu fa mu nekk fekk dafa comprendre lul. Hmm. Eh, moo tax sax imam Pape mu def na ci lu am solo eh, mooy bi muy feeñal ne ñoom imam Shafi ñoom imam Hanbal ak eh, ñoom ñëpp imam imam Malik jàngal na leen. Hmm. waaw ñoom ñëpp nekkoon nañu taalibi imam Malik mu jàngal leen. Hmm. gannaaw sa nag lañu jóge si imam Malik dem jàngat si yeneen borom xam-xam daal di bindaat téer yi ñu bind. waaw kon su ko defee tamit yoo xam ne dinay baax di leeral léeg-léeg si ñenn mm-hmm. mooy comme li mu doon expliquer léegi rek ci wàllu euh, basmala comme ni ko imam imam xanafiya euh, waxee. Mm-hmm. ak imam euh, kii nam tuddati xanbal. Mm-hmm. ñoom dañu jàpp ne sunna la. pour jàngal bismillahi rahmaani te ak ñoom andil lañ kay adilla waaw te ñoom si imam malik la ñuy jànge waaw mais bu dee léegi bu fekkee da nga ñëw par exemple si ñun tiijaan gis nga bi dañuy jàng bismillah rahman rahim te ay malikiye lañu waaw moo tax yooyu ay mbir la yu sew yoo xam ne xam naa ne waxtu yu moo xat rek waaye lu ñu war a gën yaatal la su ko defee lu nekk rek ñu andi dalil bi nit ki xam ne bon lii kat ñu ngi koy def waay fii la tege moo tax imam pam mu leer ak bu mu leer mu ne kat si tijaani da nga wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Ahmed Tidiane noonu la ko jàngale njabotam noonu la koy jàngee waaw su ko defee nag yow nit ki li nga dégg ñu wax la imam xanafi nee na lii imam shafi nee na lii loolu itamit bu fekkente dafa am si yenn yenn yoo xam ne dafay xaw a jax-jaxal soxol da ngay taxaw ñu laajtaat ñu leeralal la between ngir yi waaw su ko defee yow doo mën a doo mën a kii su ko defee kenn ku nekk lay gën si yow ku gën a noppale da ngay jàpp imam malik muy sa muy sa sëriñ wala nga jàpp xanafi muy sa sëriñ wala nga jàpp saafi muy sa sëriñ nga topp boobu da nga continuer léeg waaye léeg-léeg doomu aadama dañuy xool rufs bi fan la nekk ñu ne yëmbal bi kat si côté bii mu ngi si imam malik ñu ne ko dañu topp imam malik ba mu xaw a mel ni ku diis si ñoom ñu ne imam saafi yi moo gën a yalamal fa nañu bàyyi imam malik uti imam saafi yi waaw te ngir yi moom léeg-léeg du doxe noonu da ngay ànd ak kenn rek nga wóllaranteeg moom nga matal waaw xam naa nag si beneen jamono wala ajjuma yi di ñëw incha allah Euh, mm-hmm. comme julli dafa yaatu dinañ ko gën a yaatal. Euh, mm-hmm. question yëpp dégg nañ ko enregistrement yi itam mu ngi fi dañ koy nuyu oustaz Pamboub mi ak imam Mamor. Mm-hmm. dinañ leen may si enregistrement ñoom ñu déglu ko su ko defee tamit yooyu yëpp ñu gën ko yaatal pour que communauté bi fii ñun ñëpp ñu ànd rek mën a jëriñ incha allah. waaw ñoo ngi rafetlu vraiment contribution suñu Mamor di rafetlu lu baax oustaz Pamboub di ko ñaanal yàlla bu baax a baax. jërëjëf euh, oustaz Assane yow it sa intervention am na solo parce que man may wax rek toujours ne. ñi nga xam ne sama classe nga xam ne sunu àlliwa soriwul nga xam ne yàlla daf la booleeg Seydil Hadji Malick nga xam ni tabaarkàlla moom nga xam miin ko wala yàlla boole la Cheikh Ahmad Bamba nga miin ko daanaka dara looy fore ci feneen amu fa li nga xam ne njàngale maam Cheikh Ahmad Bamba toppal ci loolu li nga xam ne njàngale maam Seydi Hadji Malick toppal ci loolu bu ko defee doo juum ben yoon ndax it wax dëgg yàlla ñoom it fanu naa ne naan waaye loo xam ne nii ku fa naa ne doo doo doo loru kon nag boo bañee juum rek sa sa sa sa wasila da ngay topp ci ginnaaw rek loo xam ne rek moom la doon def def ko bu bañee a te kenn du la yedd kon xaaj Pape Diagne xaaj Pape xaaj Faly ma jox rek nga joxe sa programme nu bu ko defee nu tëj jox sëñ Pape mu mu tëj session bi daal non non ñoom dañ lay jàppale pour jox la namba waaw namba boobu foofu dugg nag xaaj Pape um, waaw jërëjëf jërëjëf Hadj Fall yi ah, jërëjëf sëñ Maam Moom Mbàkke ñu ngi koy nuyu um, comme ni ñu ko waxee sànq rek ñu delluwaat rek bànkaat bi nga xam ne moom la ñuy programme mu ITFA la Islamic Tijaniya Foundation America moom la ñuy am chaque semaine uh, li ci jiitu mooy ñetti fan yi nga xam ne sëñ Ahmed suñu sëriñ ci boppam moom mooy jàngale alxuraan uh, naka jekk mi door ci uh, Tuesday mardi from 8 to 10 p.m. Uh, mi ngi def classe bi ci wolof te classe boobu uh, ñi ci nekk xaw nañu sore biñ ko dooree yàgg na waaye ku si nekk rek mën nga join su jugee ci Tuesday bi Saturday uh, muy samedi one ba two thirty p.m. mi ngi jàngale alxuraan boobu mi ngi koy def ci anglais mi ngi ko jagleel xale yi waaye mag ñi tamit xaj nañ ci. Euh, xanaa loolu tamit ci sunday bi dimanche bi one ba three pm ñu ngi jàngale ci wolof euh, pour ñi nga xam ne ñu ngi door ñetti classe yëpp nag mi ngi koy amal fii ci zoom bi fi ñu nekk nii euh, ku ci bëgg a bokk mun nga woo soxna Ami Sarr 401 261 2701 401 261 2701 wala nga woo maam Adama Gueye mi ngi ci 401 688 5617 401 688 5617 wala nga woo Adja Norin Soxna Jeewo uh, Cheikh Dial Pape Ndiaye Gueye ñoom koo ci woo rek incha allah mën na la boole nga fexe nga mën a bokk ci classe loolu mooy ñetti fan yi nga xam ne mi ngi koy jàngale waaye tamit comme niñ fi nekkee woon démb fii ci Zoom bi from 9 to 11, eleven uh, muy programme mu ëttu ITFA ñuy waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci social bi Euh, buñ ci waxtaan nag dinañ indi moo xam docteur lay doon wala kuy yëngu ci immigration lawyer wala kuy toppatoo affaire taxi wala jàngul xale yi ñu waxtaanee ko ñu euh, ay borom xam-xam ñu waxtaan ci euh, pour mu mën a yombal suñu nekkin fii ci communauté bi ci Amérique gannaaw loolu tamit beneen bi mooy tey juma ñu ngi def xadaratul juma from nine to eleven fii ci Zoom bi ñu indi ay borom xam-xam. fu mu waay mën a nekk ci àdduna moo xam Amérique la wala Sénégal euh, ñu ñëw toog ak ñun ñaari waxtu nine to eleven euh, waxtaan si suñ diine ñu laaj leen ñu tontu euh, am na tamit Wednesday dinañu def benn one hour meeting loolu mi ngi jëm ci fondation bi pour ñu mën si saytu luñ ci mën a def rek pour mu mën a jëm kanam boobu tamit ku ci bëgg a participer rek mi ngi ci Zoom bi from eight ba nine incha allah kon xaaj faal ñi ngi ñi ngi ñu ngi lay delloo kàddu bi di gërëm Pap Mboup imam Pap Mboup ci eh, opportunité bu mu ñu may ak jàngale bi mu fi def tey ñu ngi ko ci gërëm di ko si sant xaaj Fally jërëjëf jërëjëf xaaj Pap xanaa rek di sant bu baax Serigne Mam Mor mi nga xam ni tabarkallah andoon ak moom kon nag sëriñ ah, ah, imam Pap tabar ñi ngi lay sant di la gërëm ci turu Serigne Ahmed di turu Itfa di am mbégte lool di la wax ni wax dëgg yàlla ngoon gi ngoon la goo xam ne ngoonu daara la lu bari jàng nañ ko ci yal yàlla fay la ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa rek di ñaan yàlla dajawaat ak yow incha allah ci yeneen jamono waaye di del delluwaat ci turu sëriñ bi di la jaal sarak jooj wala sa jigéen boobu nga xam ne génn na àdduna it faayit ñëpp ñu ngi la koy jaal di la di ko ñaanal yàlla di ñaan yàlla bàyyi la fi nga yàgg ko ñaanal ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ma jox la kàddu bu mujj rek nga tàggoo mbokku jullit yi. ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla baaxee mën toog alhamdulilah xamuñu dara duñ dara mënuñu dara ñu yàlla xamal mu néew mu bari ñu bokk ak ñëpp kooku warugar la si lépp warugar la si képp ne la nga mën sa morom mën na lu ko ëpp la nga xam sa morom xam na lu ko ëpp waaye war na si képp ku nekk loo xam ci lu baax ka bokk ak ñeneen war lañ ko dikke di ab bégte nag it faam suñ it faala da nga ñaan yàlla defal leen tawfiq daal yokk xéwal gi yokk mën gi yokk sutura bi xam-xam bi fu waay indi yan na barke ñu wax loo xam du noonu ñu wax loo xam du noonu ngeen dañuy ñaan ngeen jéggal nu yéen ñaan yàlla aussi ku ko dégg si te du noonu mu jéggal nu jéggal leen suñu intention mooy suñu yéene mooy wasaare di ñu yàlla xamal mu néew néew yan yàlla nangu lool te barkeel ko yàgg di daje yàgg di nu suturaal yàgg di ko jaamu yàlla di ko nangu ñi fi jóge ñëpp yàlla yàlla jéggal leen mi nag nga xam ne jaam la comme mm. yàlla yàlla teggee mu jógee fi mm. tant que ma ngi fi nag mm-hmm. nan toogaat seetaat suñu toogaay bu baax a baax alhamdulilah yàlla sutura nan yàlla sutura sax Cheikh Omar mm. Fouti daan na ñaan radiyallahu نسأله التوفيق والهداية ستر في الدارين والولاية نجعل السترة دين ديف زيارة أحمد نانا جال التشهر ساكو وسنان تيموم نجعل في الدم نجعل في أمريكا دم في السنغال دم أدنى بيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى مبوكي خريدي لي لنا إدفاع أني لون تاي كون نيجي تاغوك يين ajji ba bii di dellu si incha allah ci waxtu wi di leen wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo ITFA rajo ITFA ànd ak yéen ci programme yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo ITFA ànd ak yéen lépp luy askanu Gambia wala mu soxal askanu Sénégal te nekk ci biir Amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo ITFA ci programme yu am solo rajo ITFA di rajo askan wi leeram ya jolli fo xol fo fa bawan radio ITFA dal dama ni jàppal ma bi radio bul ko ti ba mukk radio ITFA radio askan wi رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب وهب صلي على محمد الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالله